ci euh, rejoindre nañ ma moy rédaction bu King FM euh, Pape Ma euh, Fego ak Maodo Fall mi teunk xibaar yi légui légui tay nak suñu invité dans ce studio c'est un plaisir qu'on reçoit Et là je mi nga xamné ne moy chargé de communication bu fédération sénégalaise bu basket mom lañu dans dalal tay ci studio bi pour parler bien sûr ci walu basket nañ ci waxtaan bu baax ak ñaan yi nga xamné ñoko ñoo ko muy Pape Ma Sar ak Maodo Fall ñom nak non seulement ci euh, rédaction bi lañu bokk xarañ ci yu bari waaye tàggat yaram daf ci rawati raison pour laquelle bu àjjuma jotee suñu yittee euh, wàllu sport daf ñuy yitteel bu ñu demee ba deuxième partie bi euh, dinañ ànd ak yéen ci lépp lu jëm ci wàllu culture ak Penda Badji qui reviendra aujourd'hui sur des reportages ak loolu lépp lu concerné wàllu actualité ci wàllu culture ak agenda bi nga xam ne moom la ñuy tëjee àjjuma bu ne toujours un plaisir de retrouver cette équipe ce matin muy Pape Madiakhaté ak Mamadou Fall Pape Madiakhaté nuyu naa la waaw ah, voilà là je t'entends bien voilà. <laughs> mon gars, euh, exactement ñëw na léegi maa ngi lay fay bu baax Kals di di am euh, retrouver 9 11 tey ci vendredi bi nga xam ne dañ ci waxtaanee le sport la culture également euh, di nuyu Modou di nuyu également suñu invité El Hadj Sarr chargé de communication fédération sénégalaise bu basketball di am mbégte recevoir ko ci ci studio bu Radio King FM ci émission 9 11 jërëjëf Pape Madiakhate le temps de ñuy ñuy nuyu suñu invité ma dalalaat euh, euh, Mamadou Fall mi nga xam ne léegi la fi jóge euh, ci wàllu tàggat yaram tey moom lañ ci àndal Modou noo defaat. waaw sant yàlla bu baax Kalsan di la delloowaat nuyoo gi di nuyu suñu invité nga xam te ni moom mooy chargé de communication bu fédération sénégalaise bu basket. Euh, nekk nag discipline boo xamante ni euh, indi nañu ay distinction yu bari quand hmm. euh, boo dee xool moom a gën a neex boo dee xool ñu jox ci ah, trophée dañuy gagné rek. amul beneen discipline bi ñu ko indil. di hmm. ko dalal di nuyu Pape Madiakhate mi nga xamante ni moom laa feggool fii ci studio bi. Hmm. di nuyu itam mbooleem auditeurs yu rajo King FM. jërëjëf Modou Fall non lañuy ñuy nuyu ko euh, muy El sar comme ni nga ko euh, chargé de communication bu Sénégal euh, fédération sénégalaise bu basketball monsieur Sar, ñi ngi lay nuyu bu baax am mbégte ci ni nga wuyo suñu invitation tay ci suba euh je le remercie Kals donc je pense que ça fait ça fait vraiment plaisir ci ñëw bi tay mm-hmm. euh, déjà maa ngi koy wax sànq Pape Sarr. Mm-hmm. que ni je vous ai suivi depuis bi ngeen di dora créer. Et puis c'est très important aussi qu'on ngeen associé euh, aussi partie sport des fois aussi information parce que musique rek ça ne suffit pas. des mhm. fois nous euh, ñu déglu après nous décrocher dem ci fréquence pour mhm. wuti ji voilà voilà donc euh, c'est à l'image de ce qui se fait de mieux mhm. euh, dans le monde Manque ici, koy cité sànq Radio Radio bu de Paris Skyrock tout ça donc ce qui veut dire que nous wax dëgg euh, vous êtes dans le grand standard di am plaisir aussi euh, jàkkaarloog yow tay suba parce que ci Real One rek la doon déglu. dëgg la <laughs> yow ak euh, Oli tout ça donc. Mm-hmm. c'est toujours un plaisir en tout cas de venir ici. parce mm-hmm. que voilà groupe Futur Media moom. Mm. alalu askan bi la ñun jërëjëf Sar ñu ngi lay gërëm bu baax ci wuy si bi euh, balaa ma lay bàyyi rédaction man j'ai l'habitude de le dire que basket moo ma gënal euh, ci discipline yi ñu am parce que liñ ciy am ay coupe dafay bari. Mhm. et euh, rarement lañ ciy am sax ay déception d'ailleurs la dernière fois je pense ak jigéen ñi dem nañu ba final. Mhm. et ça a été vraiment une une fête boo xam ne mhm. yaakaar naa Sénégal yëpp dund nañ ko ci suñu arena bu bees boobu ñu doon ñu doon ñu doon daloo mu nekkoon mbégte bu rëy donc dama leen di bàyyi ngeen dugg ci waxtaan bi le temps de revenir également sur d'autres questions tout à fait alors El Hadj Sarr ginnaaw bu ñu la nuyuwaatee euh, ñu gis ne euh, saison bi euh, année 2019 bi doonte jeexagul mais gis nañ sélection nationale yi muy goor ñi coupe du monde bi comme petite catégorie également ak jigen ñi ci afro basket bek préliminaire tournoi qualificatif olympique yi nga xamné mo moo jeex keroog te ñu so qualifier gis nañu né participation yi danaka lañu ñu ca bëggoon dëgg ni ay résultats démé wut nonu yow tay ban bilan nga ci def ci participation sélection nationale est année 2019 c'était riche en événements Bon, évidemment, donc euh, déjà, donc, me permettre de me féliciter aussi toute euh, l'équipe de la fédération, euh, les ligues de basket, nous sommes un peu dans les régions, du dans le basket. je suis de Ziguinchor. J'ai été le président de la ligue pendant 4 ans là-bas parce que aussi les vrais acteurs du basketball, souvent, euh, c'est des hommes de l'ombre qui sont formés. Euh, tout ça donc euh, évidemment on vient de sortir euh, d'une très longue saison Il y a wax saison bi pour l'instant mm-hmm. parce qu'il nous reste aussi le tournoi de montée en première division mm-hmm. mais le championnat de première division bouclé nañ on a bouclé aussi les différentes compétitions avec les équipes nationales pour l'année 2019 euh, nous nous sûrement en février. Mhm. dina euh, compétition avec euh, l'équipe nationale masculine. pour mhm. les Jeux olympiques. maintenant par rapport à la question bi nga tournoi Mokto bi nga en fait je pense que le bilan au jour d'aujourd'hui il peut être mitigé il peut être mitigé dès lors où Sénégal comme Nico Kalzo waxee basket tout le temps tout le temps. Mhm. maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que au jour d'aujourd'hui les équipes nationales c'est des cycles manam day am fi muy euh mu xaw mag màgg mu dem ba ben instant bu tolo euh, ci cappaandaw ga là on gagne tout on rafle tout maintenant quand on dépasse ce stade là euh, day am souvent ben, ben, ben, ben pic bi nga xamante souvent les équipes doivent se réorganiser se reformer tay muy sunu équipe nationale góor comme muy sunu équipe nationale jigéen. Euh, la moyenne d'âge, elle est très élevée. Chez les garçons, la moyenne d'âge, elle tourne entre 33 et 35 ans. Mhm. Euh, chez, les, chez les filles, euh, entre 32 ans et 33 ans. Mhm. Donc, nous, Disney euh, bo euh, boo euh, équipe yu melni tay équipe ngeen di dégg ni tay par exemple Mozambique bi ñu mhm. euh, il y a 5 ans il y a 10 ans ci ginnaaw ken daaw leen dégg. parce que tout simplement euh, période bi Sénégal non gagné en 2015 ñom ils étaient en train de travailler à. Euh, faire éclore une nouvelle génération. Mhm. pour que génération bobu non tey mo mag moom mo nek di def face. Mhm. euh bo jélé 2015 dem Yaoundé di gagné afro basket bi à l'époque nigeria euh, Nigeria beaucoup sorti dernier carré et aujourd'hui on a vu que depuis trois quatre ans ñom ñoo que di trôner sur le continent c'est parce que tout simplement aussi phase de transition bobu non ñom lañ période il faut oser le dire, c'est-à-dire Sénégal il faut qu'on mise un peu sur la relève. Mhm. Il faut qu'on mise sur cette phase de transition. Euh, dem afro basket Fi, Sénégal gis que l'équipe vraiment s'est battue et on a perdu sur le fil c'est un match qui pouvait basculer dans un sens comme dans l'autre au lendemain maintenant de cette euh, basket il fallait que nous am Ben jangat def et nous avons décidé tout simplement de travailler pour la transition. Mhm. Et parce que c'était soit nous devons collègues, on n'a pas de compétition majeure ou bien on n'a pas de compétition, on a réellement nos cartes à jouer. Ou alors nous veille afro basket et à partir de ce moment-là, ce serait très risqué. Mhm. C'est pour ça que nous avons décidé euh, de faire cette transition-là. À Maputo, l'entraîneur national a fortement remanié l'équipe. Mhm. Il est parti avec de jeunes joueuses parce qu'il fallait leur permettre de, de, de, de, tenter la qualification, mais en même temps de tenter leur insertion. Malheureusement, mhm. la qualification n'était pas là, mais au moins, côté insertion, on Fatali. pense que c'est déjà... Fa fa euh, émission bien en Wolof, là, nous sommes Exactement. Donc... Euh, ben, ben avant, pas, euh, pas Maguette Ngedjel, on quoi, relève bi nous euh, devons préparer là parce que les gens avaient vu venir sax ni B bi waron nañ remanier 4 ans ou 3 ans ci mais euh, tey jii laaj bi nit ñi di laaj euh, déroute bu Sénégal am ci basket bi euh, dañuy changement d'entraîneur on a pris celui qui qui quand xam modone coacher jigen ñi jox ko goor ñi Cheikh sar nga xam n'avait pas l'habitude de coacher les les dames. Mhm. jox ko jox ko jigen ñi donc da fay indi ben genre incompréhension au niveau de la tanière ba mo waral résultat yi ndax yow gis-gis bobu nga am da ci and ak ñooñu wala wala wala du lolu euh, bon, man, je pense que dès lors où il y a des faits euh, la fédération, l'entraîneur, la direction technique, tout le monde mhm. euh, doit être indexé au premier chef. Et c'est quelque chose qui amené pour moi, mhm. on ne doit pas s'en cacher, on doit assumer mhm. cet état de fait. Euh, mais je pense que du sama parce que moi en tant que euh, basketteur bi joué j'ai eu à évoluer avec des des entraîneurs qui nga xamante mais yor aussi ay mhm. l'exemple patent c'est est-ce qu'il y a une différence entre. Euh, y a, voilà c'est vrai que la différence am. Mhm. c'est important. Mhm. maintenant il euh, y a des entraîneurs ils réussissent. Mhm. Mhm. aussi ça peut constituer une difficulté. Mhm. mais moi je pense qu'aujourd'hui euh, pour ce qui est de cher ça ne peut pas être une difficulté. parce que Dourek entraîneur c'est un entraîneur aussi d'abord c'est un professeur d'université. Euh, sociologie du sport là il a de l'expérience il a de l'expérience tu vois. maintenant tu prends quelqu'un comme Moussa Gaye qui aujourd'hui nous a valu beaucoup de satisfaction chez les filles. Et pourtant, sa formation et la première équipe nationale du New c'était l'équipe nationale euh, masculine. Donc, euh, interchangeabilité, nous, des fois, nous a retrouver. Et puis, ça réussit. Mais je suis d'accord avec toi, des fois aussi, ça peut être un facteur de blocage. Mmh. Maintenant, c'est important Mouako, parce que on doit être vigilant et attentif par rapport à toutes ces remarques-là. Ça nous permettra de nous évaluer ak aussi bu ñuy reconstituer mhm. euh, ñu mën examiner tous ces éléments là mhm. sànq yaa ngi koy yaa ngi wax euh, par rapport ak euh, li nga xam ne moom mooy ci dernières années yi ak manque de manque de de trophées boo xam ne nemmeeku nañu ko ci góor ñi comme ci jigéen ñi en matière de trophées yaa ngi koy wax sànq yeneen réew yi comme ay Nigéria ay Mozambique des années derrière xëy na xalaatuñu woon sax toll fii ñu toll Sénégal est-ce que cela ne voudrait pas dire ci benn côté na xëy na li ngay wax nii moom la fédération bëgg a def ak équipe nationale yi renouveler ko yeexuñu ko def euh, ci ko def de 1 ou 2 ans ngir mën permettre équipe bi heure bi mu régénérer parce qu'on se rappelle ci petite catégorie il euh, y a pas longtemps gagné y nañ fi ay compétition tout à fait en fait euh, man si tu veux mon avis personnel je dirais que ni sommes nañ ko def ça ça ça m'engage moi personnellement maintenant il faudrait aussi que nous xamni que ni au Sénégal on a une réalité que nous nga fait un peu partout dans les différentes fédérations Fait que nous avons gagné dañuy duñu duñu faral di combiner euh, la relève ak euh, li nga xamantene ni mooy li fi nekk et d'ailleurs souvent sax même quand on a envie au lendemain de de de de victoire def relève bi souvent da ngay gis ni que ni day am ay rétention yu métti moo askan bi sax moo ciy Euh, on a un peu vu ici la génération 2002 avec le football <laughs> dem nañu ba ñëpp xamoon nañ ni que ni benn instant waroon nañ leen vraiment libérer mais on a insisté euh, ak ñooñu ba bi ñu demee commencé di laaj ñu tegle ay kan yu bari yi nga xamante ne doxul ci la ñu ñeme def relève boobu. Mhm. effectivement euh, génération bi nga xamante ne ñoom ñoo gagné en 2015 c' était pas une jeune génération. Mhm. c' était pas une jeune génération maintenant euh, comme ni ñu naan yàlla buy defar day mel ni lu yaax. Mhm. peut être qu'il fallait que ñu ñu ñu jaar fi ñu jaar. pour que ñu comprendre ni que ni euh, parce que tey boo jëlee des joueuses yi nga xamante ne ni amna ci ñi nga xamante ne joué nañu afro basket euh mille deux mille mhm. euh, joué nañu ak euh, Anne Marie Diokh. Mhm. Anne Marie Diokh tay ko mhm. xam xam ne ni euh, mi ngi waaj a ans yi. wala su ko ba pare tu vois. donc c'est c'est des choix yi nga xamantene ni qu' fallait faire et nous avons compris que ni war nañ ko def dinañ ko def on s'en excuse aussi parce que des fois Sénégal. comme li ñu wax rek. Euh, bu amee benn discipline bi nga xamante dañ ci dañ ci dañ ci yàgg di di gagné. Mhm. Euh, nit ñi dañuy xaw exigeant bu baax. Mhm. tey boo déggee situation bi ni ñuy wax. ragal défaite aussi ah. voilà tu as l' impression que toog nañ <laughs> dix ans gagné wu ñu dara il y a juste 4 ans. bi ñu mujjee gagné basket. mais ci góor ñi quand même ëpp na yàgg na. oui oui ci góor ñi quand même yàgg na. loolu moom man ci góor ñi dama amoon benn question peut être yéen ñi mhm. euh, nga xam ne tàggat yaram yitteel na leen des fois su ma pose la question ndax. Euh, mondialement euh, niveau bi basket wu góor ñi toll euh, moom moo kawe dans le monde entier wala ñun ñoo xaw faible niveau parce que bu dee ci jigen ni quand même ñi ngi am la chance di dem di am ay trophées mhm. wala peut-être Sénégal bu ñu Sénégal votre tekkalé góor ñi ak jigen ni peut-être jigen ni ñoo ëpp niveau est-ce que c'est au niveau mondial wala ci ñun n'est suñu basket wu góor ñi am problème hmm. non je pense que c'est au niveau mondial au niveau mondial euh, basketball ou au niveau là-bas franchement euh, madame li nos chances sont vraiment amoindries maintenant sur le plan africain mhm. on a nos cartes à jouer et par contre il y a un hein. travail chez les hommes il y a un travail les autres pays def Angola et consorts il faut que nous def ko. Mhm. Euh, détection c'est très important. parce que les mhm. li nekk mhm. li au Sénégal yuy évoluer dans les championnats européens Espagne tu pars aux États-Unis récemment j'ai découvert un jeune euh, que je ne connaissais même pas que l'entraîneur national aussi ne connaissait pas. mais bi mu le profil. quand tu l'as vu les vidéos du, garçon, tout de suite, il a dit qu'il faut que Moudemba États-Unis pour cette école. Donc c'est ce travail-là qu'il faut faire. Nous sommes conscients qu'il faut le faire et le président de la fédération aussi, euh, pas plus tard que sur nos dernières réunions de bureau fédéral, mais mhm. euh, il a dit que saison doter davantage de moyens aux entraîneurs nationaux, mhm. euh, à la direction technique pour que nous menions wëriji ces joueurs là mhm. pour que déjà nous teel sécuriser Et l'équipe équipe nationale France amna à ay joueurs yi nga ennemi. Euh, ay joueurs sénégalais lañu ñu ngi leen ñu ngi leen ñu ngi leen ñu ngi ñu ngi di mhm. bëgg leen jox nationalité alors que fii leen jàngee basket. Mhm. boo jëlee tey Astou Ndour nga gis ko. Espagne avec l'Espagne voilà mhm. c'est c'est c'est une grosse perte pour le pays. maintenant c'est un travail bi nga xam ne boo ko teelul def suba tu peux pas reprocher à ces jeunes là. Euh, ñu dem jël opportunité yi nga. est-ce que c'est le même cas que Youssoupha Fall également. exactement je faisais allusion à Youssoupha Fall mais par contre Youssoupha c'est pas c'est pas ça Youssoupha. Euh, depuis depuis depuis trois ans déjà ñu ngi ci ñu ngi ci doon liggéey euh, moom moo def le choix vraiment d'évoluer pour la France malheureusement euh, fédération sénégalaise dem na sax ba libéré ko. parce que mhm. aussi bëgguñu joueur bi nga xamante ne bëggul ñëw ñu forcer ko pour mu ñëw. Mhm. mais wa FIBA ñoom ñoo ko bañ a pour la France parce que nee nañu fii lañ ko formé. Mhm. te bëgguñu aussi à chaque fois ñuy permettre. Mhm. mais mais mais ni satisfaction ci goor distinction au Sénégal euh, la majeure partie de l'équipe était composée de locaux hmm, Nous lañ japp ni euh, bo xolé euh, classe ñom Matar Ndiaye bi fi lañu donc fi jugee dem à l'extérieur mais tay jii le basketball a tendance de def contre football c'est-à-dire une sélection nationale on sélectionne des joueurs qui évoluent en Europe ñoo xam une amuñu base fii euh, ci ci yenn club est-ce que loolu bokkul ci li un peu le basket masculin. <laughs> enfin maa ngi dégg question bu neex parce que c'est quelque chose bi man j'ai toujours déploré ça. Mm-hmm. sur euh, le sport sénégalais en général. Mm-hmm. Euh, ci basket laa yëngu mais damay suivre football bu baax. Mm-hmm. c'est un ami on était il y a deux semaines ensemble à Kolda. ñu ngi doon waxtaan sur la même remarque bi nga def nii. c'est-à-dire man dama gëm ni que ni équipe nationale pour que mu mën porter ay résultats muy góor muy jigéen l'ossature doit être locale mm-hmm. Mm-hmm. man lolou la gëm mm-hmm. pourquoi parce que tout simplement euh, yenn réalité yi évolue évoluer fi mom moko ko a xam mais lo jël tay ay joueurs yi nga xamantene ni euh sen vécu yëpp wala sen juddu c'est en Europe foofu lañu xam wala Amérique tey bu ñu peut-être pour ñom ben genre ben genre dañuy réunion ben campagne que ça passe ou ça ne passe pas maintenant pareil, ils gisuñu badien buy buy buy buy am qui ko sont gisuñu dëkkandoo buy am lu donc beaucoup le même ressenti mënul bok ak le joueur bi nga xamante ne ni moom am maintenant aussi si vous observez quelque chose moi tey depuis quelques années depuis un an un an deux ans euh, au niveau de l'équipe nationale masculine quand même nous avons commencé euh, am ce commencé à décomplexer par rapport à ça. Mhm. ñu ngi insérer ay jeunes yi nga xamné évoluer. fi lañuy ñuy un garçon comme tey euh, gosse comme Thierno mhm. euh fi lay évoluer nga jël euh, Pape Moustapha Diop. Mhm. qui a été roi. du basket à ak très tôt on lui a donné ses chances même coupe du monde bi. biñu il faisait partie des jeunes qui nous ont valu plus de satisfaction. fay du basket sans complexe. donc c'est c'est fondamental je parle du principe que euh, il faut que nous nous ce qui se fait ici au Sénégal mhm. maintenant aussi comprendre que le sport a une dimension planétaire mhm il nga euh, bi Sadio Mané ya ya ans 15 ans ci ginnaw ku Bambali mu mhm. imaginer que mhm. aujourd'hui euh, il va rayonner comme ça sur le le mhm. toit du monde maintenant on a des joueurs aussi comme ça comme ay comme comme comme euh, comme les joueurs dont je t'ai parlé tout à l'heure, qu'on a, qu'on a détectés. Et c'est des, des potentialités réelles qui ont été formées ici il faut aller les chercher il faut aller les chercher am nañu tey ay ay ay joueurs yi nga xamné par exemple tay dañu jël nationalité sénégalaise. Mm-hmm. duñu sax sénégalais à la base. Mm-hmm. comme Kevin Anan li mën. Euh, tu sens que ni dafa mën basket bo gisee Bintu Diémé chez les filles aussi. xamné que ni c'est une c'est une satisfaction mais ñooñu ñëpp buñ ñu dañu fi war a fekk benn moule local bi nga xamante ne moo leen war a mën a porter. justement loolu direction technique nationale mooy ñi nga xam ne ñoo ko war a porter euh, ki koy diriger actuellement euh, coow bari na ci moom loolu il est très décrié <laughs> Maguette euh, Maguette Maguette Maguette Ndiaye Maguette Diop plutôt voilà exactement alors liñ ñu koy décrié noonu y a beaucoup surtout les anciens internationaux ñi nga xam ne nekkoon nañ ci milieu basket bi yow naka nga ko gisee bon xam nga euh, a pas de gestion qui ne puisse pas être soumise à la critique euh, des fois on me fait un procès comme quoi que ni je cherche toujours à tisser les lauriers de la fédération or man je me connais euh, li am solo ba am solo il faudrait pas aussi que nous ñu ñu fàtte mhm. Diop c'est c'est c'est après tout quelqu'un qui a servi le sport sénégalais pendant longtemps. Mhm. Euh, il a été entraîneur national, il a gagné des titres. Aujourd'hui, il fait partie des entraîneurs, il fait petit titre sur le plan national. Mhm. Euh, maintenant, ce n'est pas aussi une raison pour croire que ni amul Ken ko de def mhm. euh, Mais il faut comprendre une chose, moi que pour l'instant, il est en place. Pour l'instant, le travail, il est fait avec lui et les entraîneurs. Et Dieu sait que ni les li nga ni des entraîneurs et consorts sur euh, les équipes nationales mhm. le travail il est fait avec rigueur mhm. euh, on est sorti de de campagne li mhm. nga euh, lecture très rapide et ça le président de la fédération en est conscient parce que l'union yor mhm. pour askan mhm. maintenant si ce que nous rendons nous te dis, nous satisfairul mhm. euh, askan wi dañ ci wara sans complaisance. et toutes les responsabilités. nous nous dal di koy euh, situer. si la responsabilité des entraîneurs est engagée. on appréciera et on prendra des décisions en fonction de ça. Si la responsabilité de la direction technique est engagée, on appréciera et on prendra des décisions et des mesures en fonction de ça. Mais ce qu'il faut euh, éviter, nous savons ce n'est pas euh, parce que nous parlons, parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, nous on nous a traité de tout, que les décisions yi ñu parce que gis nga affaire de Je ma moteur, man bayina, dañ ko war a bundu xatal pour que ñu ne ki fi nekkoon moo ko gën. mais mais que nit ñi aussi amuñu seen droit daal di porter ay ay ay ay ay regard ndax tey ci lañ bokkoon ci lañ bokk ba léegi ay sénégalais lañ. mais moo waral tey suñu jotaay bi. Mhm. parce que tey boo gisee euh, très tôt j'ai tenu à ce que ma bañ a tardé ñëw fii. c'est mhm. parce que dama xam ne que ni d'abord euh, yéen da ngeen nekk ci mission bi nga xamante ne mission sénégalais yi la sénégalais yi. dañu am li nga xamante dañ ko moom ñu soxla aussi ku leen ci édifier moo tax ma daw si ñëw fii mhm. donc le débat doit être posé loolu du problème bi mhm. maintenant dafa am ay débat yuy defar dafa am ay débat yi nga xamante ne ni c'est des débats qui cachent d'autres ambitions débat yooyu laa ne ce n'est pas utile pour askan bi ce n'est pas utile pour ce sport parce que euh, bu yàqoo souvent ñi nga xamante ne ñoom ñooy duñ ko souvent ñun ñi nga xamante sax ñun ñoo yor affaire bi parmi nous amna ñi nga xamante nañ ko subir parce que xeyna peut-être sen lepp ci basket bi lañ mais quelqu'un comme man nga xamante né aujourd'hui je vis pas du basket damay delu dem nek en tout cas les plus grands perdants c'est les acteurs manam xalé yi nga xamante tay ñom ñoom ñoo jël sport bi am ci ay rêve am ci ay dund motax on a on a vraiment intérêt à ce que ñu sam li nga xamante moy mooy li ñu des fois man je suis pour la contradiction mais dama wax ni que ni la contradiction dañ dafa wara am de manière saine je sais ñi fi suis. Moi, je sais fi je suis. bi am mhm. mais toujours dans le respect mais tey sais, ngay Maguette comme un propre. même si nga ni reprocher wala nga c'est constructif mais tu la mhm. ils ont souvent le sentiment que ni di man il m'arrive souvent réunion mu me dit « diw sentiment bobu il faut travailler à ce que mu dañ mhm. parce que xeyna na peut-être diw bobu ni mu poser le débat mhm. motax tay tey li wax ken mënu ko dégg alors que c'est quelque chose bi nga xam ça doit être ouvert ñepp ko mom mhm. ñepp ci am droit wax donc ki ci wax aussi na def effort pour que les gens au delà de la direction technique c'est-à-dire c'est toute la fédération qui est un peu indexée euh, moi par rapport au parcours euh, lyon y que ça soit euh, coupe du monde bi tournoi. coupe du Monde surtout. Mhm. l'équipe nationale, les gens disaient que premier carton, deuxième carton, troisième carton, l'équipe tenait. Et d'ailleurs, même si ni l'équipe avait plus de valeur que, que, ses adversaires mais manque euh, d'organisation de séances d'entraînement de préparation Mon waral ñu ñu c'est-à-dire est-ce que vous les gens de la fédération des conditions et vous ne pouvez pas l'expliquer euh, mu waral euh, muy impacté la gestion de l'équipe vous savez man damay ya ni que ni sport Sénégal en général il y a beaucoup à faire hmm. c'est ma conviction hmm. il y a beaucoup à faire ça ne veut pas dire que <laughs> rien n'est fait tamit de l'autre côté parce que moi il euh, rek a j'ai vu les efforts que nga ministère bi def euh, tey man bi may nekk joueur amu fi ce maintenant nous ñu am comparé au standard mondial nous nañ ne aussi y un fossé côté Bobo, nous en tant que fédération aussi c'est dans notre responsabilité nous gën nous pour que nous mën trouver d'autres moyens additifs yu beaucoup ak li nga le ne le ministère wala nguur gi mhm. et là-dessus je pense que ni nous nag nos plan marketing dinañu gën a 4 ci quatre ans mhm. pour ñu gën a indi ay partenaires ci ci mais li mu li mu wax sànq mhm. euh, coupe du monde en fait pour la coupe du monde il faut c'est un peu ce qu'on a vécu euh, fille ci Mozambique bi euh, l'entraîneur ñëpp gis nañu les conditions dans lesquelles il a été installé. Mhm. c'était des conditions yi nga xamante ne personne ne les avait souhaitées. Mhm. personne. Mhm. même si souvent dañuy décrier ni que ni on a fait preuve d'amateurisme. justement foofu pour pour yok rek euh, euh ndax aujourd'hui avec le recul euh yaakaaroo len ne vous vous êtes mal pris maanaam ni ngeen ni ngeen ci ni ngeen ci demee ak coow li mu jur euh, c'était pas peut-être euh, très diplomatique wala peut-être du yoon woowu lañ ko waron jaralé même bu doon am avec le euh, recul de taille. Ben, man li ma gëm <laughs> ma continuer diko gëm. moy yoon rek parce que quand je dis yoon woowu rek manam amuloon benen yoon. donc euh, c'était la seule décision parce que euh, nous avons eu le temps nécessaire pour négocier avec l'entraîneur négociation yooyu noonu vraiment une collaboration possible dans l'avenir. Mm-hmm d'abord amon nañu un problème de timing parce qu'il fallait sortir euh, les 24 joueurs yi la dem coupe du monde bi lolu ñun difficulté bobu lañu amon entraîneur bi mom amon na difficulté moy néna dire pour mu signer son contrat dire bobu même si nous japp nañ ni mais mom japp nañ mhm. il fallait encore plus de temps. donc ku ci une situation bu la arranger et je pense que pour travailler. Euh, ici à King FM c'est parce que fait que ton employeur lui me le proposé Arrangez na ko il yow le la proposé na la les deux parties peuvent se retrouver donc accord Amoul il fallait trouver une solution malheureusement c'était une situation bi nga un euh, et je pense que même entraîneur souhaitait souhaité mhm. mais c'était une situation inédite il fallait nous nous publier la liste des 24 mhm. joueurs parce qu'on n'avait avait plus que 24 heures ñu jël Tafa Gueye Tafa Gueye bu mu aussi du woon sax euh, problème de li ñu fal entraîneur bi mais réalité bi ñu bi ñu bi dab bi mooy il fallait tout de suite que ñu ñu ñu ñu greffé de jeunes joueurs ci biir groupe bi jeunes joueurs yooyu tamit bi ñu ñëwee ñu dem l'autre malheur que les sénégalais manab li ñu li ñu li ñu gën a occulté mhm. ci coupe du monde bi mooy poule bi ñu bokkoon bi mhm poule bu gënoon relevé bi ci lañu ñu mhm. c'est ça la vérité parce que ñan lañu ñu bokkaloon poule Lituanie. Mhm. troisième mondial. Canada euh, Canada. Euh, nga xamantene ni le club bi nga xamantene ne moo mhm. gagné NBA daw Toronto Canada la nekk. nga jël Australie. qui a battu de 28 points les États-Unis à la veille de ce mondial. donc poule boobu wax dëgg yàlla. keneen ku dul ñun bu fa nekkoon dana doon am problème. parce que tey boo jëlee nigeria ñi mu ñi mu ñi mu dajaloon ay Venezuela ay consort avec le même groupe Bitafa concocté dañu dem jouer un match amical deux semaines avant coupe du monde mais dañu un écart mhm. ce qui veut dire que groupe bi ñu groupe bon mhm. donc la lecture des fois nous ñi tous les facteurs mais ce ñu nous gagne encore ci coupe du monde moy pool bi ñu daloon. ci lecture bobu sax hein, euh, nit ñi d'après euh, après que yeeg euh, ñu instant bi la question qui revient le plus mon mooy l'avenir du directeur technique national mu di Moustapha Diop. il va rester wala da fay dañ koy dañ koy dindi dañuy c'est la relevée de ses fonctions lolu lañ bëgg xam quoi l'avenir de Moustapha Diop tay au sein de la fédération sénégalaise de basket day tok wala day day day dem man sama avenir sax leeruma ci fédération la Fédération, mais <laughs> lan lan moo Là, nous avons la décision de la fédération est-ce que il sera relevé de ses fonctions remplacé koy remplacer wala il demeure toujours le directeur technique national euh, fii ak quatre ans parce qu'on parle également de limite affaire limite d'âge. Oui, mais moi li ma doon wax sank rek xam nga euh, dañu génn ci ay compétitions yu bari yi nga responsabilité am engagé na. Mhm. responsabilité entraîneur yi engagé na. Mhm euh, il est chargé d'évaluer les entraîneurs mais nous on est chargé de l'évaluer lui mhm. euh, tant qu'évaluation nous ne noonu defuñu ko nous ne ñu ne diw confiance bi la jagleel euh, comment dirais-je renouveler le la ko. Mhm. man suis venu fi jóge président déglu émission je ne ko dégg naa fa donc le mhm. bureau fédéral nañu si on le maintient ou pas. donc c'est des choses yi ne on peut pas se prononcer là-dessus tant que. Euh, defuñu le travail en amont. Mhm. waxna ko kérok rek bi may def sama dernière interview mi man limay exiger en tant que membre de la fédération aussi euh, moy diagnostic sans complaisance de war mhm. affaire bi warul nek ay affaire de diw man xaritou président bi la donc euh, El sar lu ko neex mu wax. Mhm. risque rien non gis nga rigueur bobu non il faut que ñu ñu inculquer ko sunu bop kérok rek maa ngi ngi am ko mu wax man. Euh, ça fait que six mois depuis que je suis membre du bureau fédéral. Mhm. Mais ça a des dégni fani. Je suis pas prêt à l'endurer pendant quatre ans parce que xamna mon bop jola la xexkat la té duma togn. Donc j'éviterai toujours que nous ayons saga à juste raison. J'éviterai souvent nous ayons ça à juste raison. Mhm. Maintenant ñi nga xamné ils le feront à tort, ça me permettra de faire face. Mhm. Et pour que lolu mu nous, am, ñun suñu bir dañu am benn rigueur bu ñuy doxee. Hmm. bu ñu gisee ni lii doxul. écoute nañu xam ne que ni lii ñuy gérer nii ci entre quatre murs. Hmm. bu xëyee Sénégalais yi dañuy xëy teg ci seen bët. dañ ci am droit de regard te dañ ci am droit de regard. Hmm. loolu toutes les fédérations. man jàpp naa ne que ni waruñu bañ.

pour coupe du monde déjà les entraîneurs nationaux Tafa ils un rapport mhm. coupe d'Afrique euh, aussi pareil. Mhm. donc je pense qu'à partir de lundi déjà sous une réunion. Mhm. bureau fédéral. Euh, toutes ces questions là seront abordées. ça nous permettra mom, ñu évaluation aussi ça nous permettra aussi de lui fixer une date. pour que nous menions un lim fi jot liggéey moom ak technicien yi bu dee baax na ñu maintenir bu dee baaxul tamit ñu changer parce que en réalité il faut pas avoir peur de ça. Mhm. le gis nga fii am na ñu fi nekkoon avant ñun. Mhm. Euh, tey mhm. ñun ñoo fi nekk. suba on doit être préparé à ce qu'on bouge. ñeneen ñu ñëw. c'est cette continuité là mais nga toog ci poste rek foog ni da nga fa toog de façon éternelle El Hadj Sarr doit avoir la communication. de la fédération de façon éternelle ku ko ne mais sentiment boobu buñ koy am sax moy waral souvent ben sentiment de laxisme dans le travail parce que dañu là, on est là li ñuy def suba dara mënuñ ci maintenant aujourd'hui je pense que euh, président fédération la ma gis euh, ma waxtaan ak mom personnellement sentir na ben détermination pour faire un bon mandat parce que pour deux raisons d'abord situation bi Macky Sall nekk la xaw nek mhm. aujourd'hui Ben mandat. moo ko euh ben mandat. mais mandat maa terewuñ ñu wax. voilà <laughs> troisième mandat du fa am. mi mi ngi ci deuxième mandat ah. tu vois <laughs> ah. donc euh, benen bi moy euh tay dafa am une situation bi nga xam man personnellement dama j'ai toujours euh, pensé que ni handicapant. moy mhm. euh, nga Nek président ligue wala nga Nek président fédération nga bok ci club. Mhm man j'ai toujours dit que ni constitue pas constituer handicap Je suis bi may nekk président ligue bu Ziguinchor li ma que def mhm. démissionner club bi mhm. ça me permet d'être équidistant mhm. vis-à-vis de tous les clubs ku jalgati ma dans le dal on a vu des cas de violence qu'on a noté dans les stades, dans, le basketball. Il y a quelques années derrière Hamilton. Il faut oser le dire. Maintenant, je pense que le lieu na ci li président pour mu euh, cette décision là. C'est que suba bu on va pas dire que c'est parce que c'est le président du DUC qui a la décision bi demain si DUC déconne il peut prendre une décision avec le bureau fédéral et que c'est comme la suspension du championnat mhm. Tay on suspendre le championnat pour euh, l'afro-basket, en bureau fédéral président fédération la fédération, on n'était pas pour la mesure mhm. mais comme que la majorité voulait que nous suspendre mhm. on a suspendu et pourtant bi ñu tous les acteurs du basket président fédération la l'ont attaqué. Mhm. parce que du la Bok, mhm. ok comme que sommes day et consorts ñoom dans leur club donc on suspend le championnat pour favoriser maintenant le fait que beaucoup de clubs club je pense que ça va libérer et ça va permettre que les bi ñu mm-hmm. alors kaddu waaw dañuy dem service commercial le temps de revenir ah ci euh, jotaay bi nga xam ne euh, ñu ngi ko seq ak yéen ci subaak euh, El Hadj mon moom mooy suñu invité tey di chargé de communication bu fédération sénégalaise de basketball ñuy avons ci ponk yu am solo ñu dem service commercial voilà quelques publicités ngir avons un wéy ak yéen ci jotaay bi ñu merci de nous rester très fidèles ndax avons un ñuy non seulement ci fréquence bi 99.4, mais également Euh, di ñu seetaan ci suñu page Facebook ak fm www.kingfm.sn man nag ci samay gëstu xam nga dama xaw a sob euh, maa ngi gis ni góor gi si Sidien Euh, dañ ko jox benn prix fële ci NBA. Mhm. Euh, prix euh, humanitaire su ma juumul. Mhm. ci ay œuvres yi nga xam ne ci wàllu social mu ngi koy def alors monsieur Sarr naka ngeen jotee xibaar boobu est-ce que et qu'est-ce que ça fait de voir que am na seen ay doomu réew yoo xam ne ñi ngi ñuy représenter à travers le monde tey bu ñuy wax NBA on peut citer tellement de Sénégalais yoo xam ne jaar nañ fa mais bi ci mujjee te àdduna bi yëpp di ko waxtaanee mooy bu góor gi Sidian ak yi nga xam ne mi ngi koy def ci biir réewam en étant sénégalais nekk foofu ci NBA ñu xëyaat. Euh, déggaat de xibaar boo xam ne daanaka euh, man mën nako dipendam dippee euh, je pense que satisfaction bu magla mhm. satisfaction bu magla té te c'est une distinction bi nga xamante ne déjà ñun ñun lañ ko défal avant mhm. góor gi parce que bo jëlé tay waxuma la rek ci engagement am sur le plan sportif c'est quelqu'un bi nga xamante tay malgré statut bi mo am NBA bi yëpp. bu mhm. ñëwee en équipe nationale du c'est pas un joueur y retenir bopam il prend des risques il se bat il mouille le maillot mhm. euh, sur le plan sportif ñëpp naw ko ci mhm. beneen bi mooy ci li muy def mhm. ci li waral ñu euh, à ce titre là il l'a fait ici euh, c'est un garçon bi d'abord fi mu fi ni que c'est dans des conditions difficiles le basket euh, de bi muy ñëw Académie c'était pas évident mm-hmm. Mm-hmm. c'était pas évident donc fàttewul tamit euh, fi nga xamante moy moy moy moy fi mu jógee mm-hmm. donc tay bo démé comme il a il a investi beaucoup de choses euh ci walu sax emploi euh, souvent il crée des trucs yi nga xamante génie jeunes yi dañ ci dañ ci mëna mëna santé ñu gis ni euh je pense que képp ki nga xamante ni jot nga njaboté war nga xamni que ni euh yaram tout tànk Euh, priorité la mag bu mag bu mag mag bu feebaree sax euh, c'est difficile rawatina xale bi nga xam ne mënalul boppam mm-hmm. donc ñu gis euh, chaque année miy góorgóorlu souvent aussi le ministère des sports l'accompagne dans ce sens-là mm-hmm. pour que mu mën a góorgóorlu indi ay matériels médicaux di di ko jàppale wax dëgg yàlla sunu hôpitaux yi donc c'est un sincèrement man dama jàpp ni tey dañu am ay modèle ci ci ci wàllu sport bi Euh, au même titre aussi je félicite Sadio Mané mhm. pour li def ci wàllu wàllu social euh, des joueurs comme Keita Baldé parce que amna fi ay génération yu bari nga xam ne nañ fi mhm. donc dañ doon ñew yor seeni ngandi auto di di nargue nit ñi mais tay bo xolé gor gui c'est c'est un garçon très humble mhm. day dugg Marius Ndiaye romb chaise dem toog euh, à même le sol xam nga jaxasoog nit ñi vingt heures nga ñew fekk fofu moog les basketteurs ñuy jouer xam nga booy joggé ci quartier donc vraiment c'est une référence des ñu ngi koy ñaanal yalla li muy li muy def ni mu yagu ko man mm-hmm. et yalla may ko wér gu yaram parce que nous savons que ni sportif souvent mm-hmm. lolu da ko soxla école école gens genre genre prix fay da fay baax quoi parce que fay pousser à mm-hmm. nos mo xam te sportif lolu loo mënti doon à l'étranger ngay xalat ñew jàppale sa sérieux hein ah, di ci investir hein parce que ay prix humanitaire bu ñu joxé joxee je crois aux États-Unis lañ ko ko ça mm. Sadio Mané également même à euh, Liverpool en Angleterre les gens le félicitent Mhm. ci action sociale yu def Sénégal euh, loolu bu bu buñ ko commencé di promouvoir dina tax dans doomu Sénégal euh, boo nekkee bitim réew euh, di nga di nga di nga xalaat man il m'a marqué bi mu indee ay machine dialyse parce qu'à à l'époque il y avait trop d'insuffisants rénaux yu don yu don yu doon jooy machine yu il y avait mhm. pas assez de capacité de truc mhm. donc il mu je crois il y avait nombre bu takku la et puis ça m'a ça m'avait beaucoup marqué parce que tu vois le santé am na a na lu le apporté lu bëri wàllu lycée ñu ngi koy wax mosquée ainsi de suite mhm. c'est-à-dire bu bu bu bu fekkee ni dañuy dem ba suñu sportif yi di di di am yooyu mhm. xalaat prise de mhm. conscience boobu xam ni ñoom euh, ak ñun ñoo mën a bâtir suñu réew te travers eux également euh, ñoom ñooy la vitrine hein, du Sénégal à l'extérieur loolu lu ñu war a la et puis lu ñu war a di wax la bañ ba bañ ko arrêté euh, ba ba ñëpp dugal ci seen loxo parce que dëkk yoxu yu bëri koy defar dama aussi bëgg remercier au passage au nom de la fédération un Sénégalais bi nga xamante c'est un exemple aussi dans le basketball mondial. Moi, Amadou Galofal. Fall. Amadou Gallo Fall Amadou Gallo Fall mhm. mhm. qui est euh, le président de NBA Africa. Mhm. Euh, qui depuis quelque temps wax de yàlla les lu mu qui ci tu ci wàllu fédération mi koy et nous avons vu euh, récemment nii sax d'ailleurs. hier c'est la période afro Basketball. boo ngeen demee Marius Ndiaye parquet bi ñuy baskettee bi mhm. moom moo ñu ko may mhm. euh, moo ko may réewam mhm. donc euh, muy ay gestes yi nga xam ne lañu leen war a saluer c'est des exemples parce que tey moom tamit daf fi jóg nekkoon euh, xam nga moo taxoon sans xam naan waruñu xalab lépp parce que tey boo jëlee Maguette Diop Amadou Galafal ci loxoom la jaar moom moo ko formé moo ko moo ko tàggat tey euh, kooku États-Unis góorgóorlu milieu NBA bi nu mhm. imposé wu aussi geste mhm. gis ni chaque année même ils ils ont organisé benn camp nga xam c'est des camps de détection Afrique yépp ay ñëw daje fi. Mhm. xam nga donc euh, diko ñaanal mom tamit euh, fi mu nekk mu gën ci. et puis man phénomène ak tendance bu ma neex la c'est-à-dire mhm. que euh, li ngay gagné bitim réew yépp nga bëgg diko investir ce réew. Mhm. et que ñukoy jël exemple mën na sax servir xalé yi nga xam ne ñooy. doog dugg ci sport bi. pour xam ne mbir mi du rek affaire jaay star. effectivement comme on l'a dit tout à l'heure am na ñu fi jaar c'est plus des stars. que des personnes yo xam ne dañu doon dimbali. sen askan bo demee tay fu melni Casamance. Sadio Mané est une fierté fait donc tu es euh, fier d'être d'être un Casamance mm-hmm. et puis lolo de faire ci xol alors mm-hmm. euh, li ñu c'est peut-être ci waxtu bëriwul le temps de faire la transition man mm-hmm. euh, li peut-être là monsieur sarge de com est-ce qu'il est prévu comme nous l'avons ko y sànq am bilan yu ngeen jotagum y a un yu ngeen globalement est-ce qu'il est prévu peut-être de faire face à la presse sénégalaise un jour pour faire non seulement le bilan pour la Coupe d'Afrique bi ñu ak la saison également je suis d'accord avec toi en fait lolo man qui donne d'ailleurs maintenant ce que je veux juste dire aux gens c'est que la nouveauté maintenant c'est que nous on va on va on va communiquer énormément on va communiquer énormément surtout parce que c'est euh, Cheikh da de nan rewmi Réumi, mhm. euh, ku fi tout nga ranké mhm. des fois dañuy def ay procès à charge mhm. yi nga xamné ko c'est comme récemment quand euh, on nous a accusé d'avoir fait des recettes de 90 millions euh, lors de la finale de l'Afrobasket. Mhm. Mhm. Sachant que le stade Léopold Sédar Senghor, vous c'est nous dépasser 50 millions. Donc je ne vois pas comment un stade qui fait même pas qui fait 15 000 places mhm. mën 90 millions mais nous yëpp euh, li ko mën a le mois ne laisse pas la parole aux autres. Parce que à chaque fois, vous leur laissez la parole, vous leur laissez le bâton. il faut communiquer. Mm-hmm. On fera euh, le bilan. Récemment, bientôt, dinañ def euh, point de presse oui mm-hmm. expliquer un peu mm-hmm. euh, la saison. Parce que deuxième division on nous a fait des procès nga parce que pendant des années fille championnat de première division ni fi ni mhm. parce que c'est hyper coûteux mhm. on s'est débrouillé pour que cette saison mhm. fait petit bir fait petit bir Sénégal tournoi de zone Amoul, championnat de zone là on est à plus de 15 millions de dépenses mais suñ ko waxul ni et aussi ça va être aussi la même exigence avec les entraîneurs nationaux euh, moi je vais travailler pour que toutes les rencontres euh, des équipes nationales yu à chaque fois que l'équipe nationale naray euh, comment dirais-je regroupement entraîneur yi dugg euh, ñëw def conférence presse journalistes yi laaj lan tout à fait euh, Waouh, Kals je pense qu'on a fait le tour de la sujet Actambe également euh, alors justement il question rek une poser ndax di ngay su ndax sport bi badminton xam nga <laughs> non non comme tout bon sénégalais ah je pense que ni moom. waaw xanaa ngeen ngeen forcé ñu ko rek ñu dem ci amul problème. justement voilà Kaz amna ben ben ben élément buñ ci buñ ci jotone def badminton. recevoir woon ci ay ndaw yo xam dañ ci yëngatu représenté woon Sénégal euh, au au Japon bu fekkee né yemb na rek ñu ñu teewlu ko ñu gëna a découvrir euh, li nga xam mom modi badminton des sport bi nga xam ni comme ni nga ko waxee euh, nekkul loo xam ne miin nañu ko bu baax ci réew mi c'est sûr que Sénégal mom bo waxé rek basket basket wala football euh, wala yeneen discipline euh, ni ki bit ci soccer bi nga xam ne ñu ci mondial bi jamono ji moom la ñu gën a miin jamono yi euh, mais badminton doon sport boo xam ne miinuñu ko fi bu baax c'est des c'est des sports on va dire nouveau yoo xam ne fii au niveau du Sénégal xamuñu ko trop wala xëy na duñu koy suivre loolu ni yeneen discipline yi bu fekkee ne nag yemb na ci seen seen pàcc dinañ dinañ ko dinañ ko wax sinon ñu ñu ñu ñu évoquer un peu non mais c'est bien que ngeen ngeen ngeen intégré ko hein, mhm. parce que je me rappelle il y a 10 ans 15 ans derrière. Mhm. Euh, mhm. à l'époque on n'en parlait pas. Ah mais comme que vous avez eu aussi le réflexe d'accompagner. Mhm. je pense que c'est bien. tout à fait alors euh, Kalz euh, c'est bon. pour l'élément on va aller découvrir. on va on écoute. Amadou Diop Déthié Diakham Thierno Moussa Kan Mbaye Faty Amadou Ndiaye juróomi ndaw athlète lañu ñom ñëpp di ay étudiant ci INSEPS bu Dakarou rax ci dolli ben discipline sportive la ñuy def bo xamné kenn miinu ko bu baax fi ci réewum Sénégal muy badminton kenn ci ñom di Déthié Diakham di ko gën badminton nek na sport bo xamné sport de raquette la ak benn euh, engin bu ñuy wax le volant ñaari joueur yi ben filet mo leen di séparer et la raquette te sert de de rebond quoi légui da ngay fexé ba wadal volant bi ci ci camp adverse ki ngay jouer donc euh, en principe loolu la boko ko doon day melni volleyball ak tennis buñu bolé mais raquette bi c'est un peu différent avec la raquette de tennis et le volant aussi. ci jamono yi nga xamné sen yenen morom moroomi ndaw li len soxal modi football wala basketball Déthié mom badminton rek moko soxal ta lolé yag na. passion la bo xamanteni man dama ko yag bëgg. je suis étudiant à l'INSEPS damaa ñëwoon foofu foofu laa am benn tubaab bu ñëwoon fofu nonu ñëw def démonstration badminton ci école bi fofu la ko découvrir depuis loolu nonu mu ngi melni ni ko piqûre quoi mu nek genre passion ci man fofu la jaaree di pratiquer badminton boobu actuellement. ndaw yi bokk ci amitié badminton club fa ñu teg seen bët mooy Jeux olympiques de la jeunesse yi nga xam ne Sénégal moo ko war dalal. mi ngi suñu xel pour ñun pare nañ pour wàcc parce que Jeux olympiques de la jeunesse dafa nekk la nga xamante ni mi ngi war ñëw Dakar en 2022 nag programme d'entraînement yi commencé gul parce que du dépendre si ñun suñu sañoon la euh, autorité war nañ ci gën gaaw parce que yeneen pays raw nañu ci ba pare parce Les Jeux olympiques de Barcelone yi fédération internationale En 1934 ñu ngi ñuy xamle ne lu ëpp téeméeri million ci ay doomi aadama ñu ngi koy def ci alors mu ngoog euh, sport badminton bi nga xam ne euh, mine de rien dans le monde bëri na ñu koy ñu koy utiliser donc euh, c'était une occasion comme à chaque fois dinañ ko def également dinañ ci ñëw un peu de fii semaine prochaine ci également jeu de dames, ngir gën ko gën ko yaatal xëy na waxtu wi xoj nañu man dama tàggat yaram dama <laughs> doyalul ci grand bi bon peut-être xam naa dinañu mayaat beneen occasion exactement après peut-être le bilan pour revenir <laughs> largement ci waxtaan wi n'est-ce pas mais mais mais badminton laa ko bëgg laaj ba am na fédération xam nga man man benn jour la ma toog la ma toog dégg non non non, fédération sénégalaise de ma ne mais Sénégal <laughs> non badminton amul fédération <laughs> amul fédération comité bu koy gérer la rek euh, ni niñu ko ndaw yi waxé won mm. euh, ñu démon fan yi Japon def fay compétition ñewon nañ fi seet si ñu indi fi ay médailles bien c'est toujours bien euh, ay discipline yu mel noonu comme beach soccer bi nga xamné justement mm. jamono ji ñu ngi ci coupe du monde bi foofu ci Paraguay tay la tambali Sénégal tay lay tambali démb la ouverture bi Sénégal tay à 19h15 ci lay date ak Russie wara bo dajé également ak Biélorussie ak Émirats arabes unis ci yeneen ñaari jongantem ci ci pulam euh, lolu tamit xamna dañ ci dikkaat gën ko gën ko yaatal walum nawetaan également ak Rufisque mi nga xam préfet bi jël na dogal mm-hmm. arrêté euh, li nga xam moy compétition ndax ciow yu fa amone exactement deug la dinañ ci del soit largement alors euh, j'aimerais peut-être rappeler waat nit ni que ci mois de décembre bi dinañu dundat les moments les plus marquants mm-hmm. ci wàllu sport ak yéen notamment basket bi li nga xam ne am nañ ko ci année bi yépp ci mm-hmm. walu actualité dinañ ci dellu soit Mamadou Fall ak Pape madjakhati à partir partir de euh, du premier peut-être décembre euh, ñëwaat bu baax baax li nga xamné ne nañ ko ci walu euh, sport mais na basket bi ak football bi hmm. parce que buñu faté ni quand même finalu nañu ñaari yoon en 2019 voilà dem nañ ko ci football bi hmm. naka non ci basket bi El Hadj ñi ngi lay gëreum bu baax waxtu bi moñu xoj hmm. mais amna ñu mbékté bu bu yaatu et puis dinañu suivre actualité wu fédération bi na li ngeen wara def très bientôt muy le bilan pour andil ko askan wi ma Jaxate dina top lolu ñi ngi lay gëreum bu baax baax ok maa leen ah, et puis man je plaide juste pour que wax une yàlla émission sport bi mu mm. gën a mm. Mm. parce que j'ai vu une émission de qualité. Mm-hmm. parce que sport aussi li la ñu xaw a tumuraanke ci dëkk bi. les gens polémiquent beaucoup. Mm-hmm. mais dans am ay émission j'ai trouvé des des gens yi nga xamante ne ni wax dëgg yàlla li ñuy li ñuy xam mm-hmm. et tu sens que ni ils suivent. et cette radio là aussi c'est une radio de jeunes jeunes ñom ñoy ñom ñoy intéressé wu ci sport ah donc euh, gars yi hmm. wax leen Nous, kilifa yi nañu yok temps d'antenne bi <laughs> pour sport bi xam voilà man je vous je vous garantis que uh-huh. au niveau du basket uh-huh. euh, rien ne se fera dorénavant sans vous déjà groupe Futur Média bi ñu ñëwé ci afro basket bi uh-huh. c'était seul TFM et RTS la doon permettre ñuy accéder ba ci vestiaire parce que tout simplement a ñom ñoo yor benn audimat bu bu mën toucher mais aussi vous vous évoluez avec les jeunes donc je pense que vous aurez largement votre place sur ce que nous aurons à faire. En tout cas, je vous remercie. Exactement. <laughs> merci beaucoup merci beaucoup rendez-vous très bientôt inshallah inshallah euh, Diko ko gërëm bu baax a baax moom la ñu Pape Madiakhate transition bi dans quelques instants nous euh, ci li nga xam ni culture bi mais avant de recevoir Penda Badji le temps de remercier et puis accompagner suñu invité maa ngi dellu si rapidement ak Pape Madiakhate ak Mamadou Fall pour agent agenda yi nga xam li ñu mëna noté suñu agenda euh, ci weekend wi ci walu euh, ay ay jonganté yo xam warna am tàggat yaram bi euh, dégg nañu légui pa ma jaxté xamna midi culture dina ñëw ci décision bobu nga xam préfet bu Rufisque jël nako ndax ay ay ay ay ay bon ay xiiroo ŋaayoo moo amoon démb tëngeej ah, ba voilà ba ba final bi dañ ko mujjé reporté voilà ba ba ba jëmi jamono peut-être euh agenda également ci walu tàggat yaram xamna dinañ ci ñëw ci midi culture bi Mamadou Fall dila la gërëm bu baax ci ni nga andon ak ñun ci subaak légui ak invité bi nga xam mo moo feggoo ak ñun tay di El Hadj Sarr euh, nekk chargé de communication bu euh, fédération euh, sénégalaise bu basketball Pape Madiakhaté comme ni ma ko waxee léegi. di si midi midi dina ñëw ak yéen ci mm-hmm. largement. ci mm-hmm. wàllu tàggat yaram peut-être lan ngeen di lan ngeen di tëjee. waaw programme rek comme d'habitude Ligue 1 bu France Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye dina tase ak Lille tay 19h45 sinon. Euh, en Premier League Crystal Palace Liverpool à samedi à 15h. <laughs> excusez-moi euh, Manchester City Chelsea euh, samedi lay doon euh, en Ligue. Liga bu Espagne Leganes FC Barcelone Modou Fall dimbali ma ci. <laughs> Kals ba ma ba ma dimbali ko ci tuuti <laughs> Liga <laughs> Liga Liga kon ngeen japp ni Leganes ak Barça ñoy dajé gaaw gi kon bu mi di Real Madrid mom di dajeek Real Sociedad mom tamit gaaw gi la juroom ñetti waxtu ngoon di 20h ci Serie A fofu Atalanta la ak Juve. moom it gaaw gi la bu ñaari waxtu jotee Milan AC Naples moom juróomi waxtu. Torino ak Inter ñoom itam di ay match yu ñu mhm. euh, ci euh, gaaw gi Pape Madiakhaté. voilà mu nga Kalz euh, lolu moy programme bi faté wuñu également équipe nationale beach soccer bi nga xamné ñu ngi leen di top bu baaxa baaxa baax a baax di leen ñaanal ñu def compétition bu am solo merci Kalz. Mhm. amon nañu yéene xam te nak wax Soda cham Soda Thiam mooy ndaw Futur Média ba nekk fofé ca Paraguay. Mm. waaye xam nga liaison téléphonique yi. ak dëkk ba léeg ak dëkk ba ak yooyu day mm. xaw day xawa jafé jafe. Mm. mais jàppale ni Sénégal dana dajeeg Russie kon. Hmm. tey jii mu nekk match d'entrée. Hmm. Euh, bu Sénégal ci wàllu beach soccer. mi ngi mel ni ba nga demee Zimbabwe kenn mënu laa jot. <laughs> taa ñu yónnee ah dëgg la kii yónnee woon nañ ko Zimbabwe laaj ko. jamono <laughs> Robert Mugabe. ok <laughs> jaa ngeen jëf sama gars yi. merci beaucoup yi dafa tàkk rek mu fay téléphone yi. mom lañ leen jagleel euh, ci 9 euh, 11 ma ci profiter peut-être du nuyu euh, grand Ousmane Faye bu baax di manager Omar Pène qui nous a donné l'information ci Omar Pène mi nga xamné waron nañ ko recevoir ci jotaay bi qui est actuellement à Paris di préparer un album de retour album bi nak mi ngi ko tudd dippee dellu voilà c'est un album bo xamné Omar Pène mi ngi koy enregistrer à Paris et puis très bientôt peut-être ci mois de décembre bi dina dellu si Sénégal ñun sax dinañu jëmo a ak mom ci téléphone bi donc merci beaucoup Ousmane Faye euh, le manager de Omar Pen pour cette information euh, très importante parce que Bobo ak là, Omar Pen, fu mu alors ñun on vous donne l'exclusivité euh, pour vous dire qu'il se trouve actuellement à Paris pour préparer son prochain album un album très attendu Omar Pen un légende voilà voilà vois la musique sénégalaise moo tax Dégué, ay voilà info Bangok, ngoog Daouda boo bëggee mën jël pour xam Omar a ngi ñëw te Yagatul dara parce que vous nañ ñi Omar Pen. on va continuer sans ñuy xaar recevoir ñaari ajaratu ci studio bi ajaratu bu ndaw bi ak bu mag bi euh, bu mag baangi ngi man jor mbooj sama xarit bi xaritu papa cheikh allah nam nga bàyyi cheikh nam na bàyyi cheikh lool <laughs> ma ngi li sante bu wéré wéré aladji kalz di nuy rek euh, ñi nga xamni ñoo ñi baye xel à chaque fois ci 99.4 am mbégte euh, sa su di jakarlo ak yow njariñ kessela la jeex na <laughs> yow nak da ngaa feggoo ki nga xamni waxtu yu moko mom xëccu ka kenn muy ah, Adja Penda waaw koo koy Penda Badji moom bu ñëwee lépp lu jëm ci wàllu culture dañ koy faram-fàccee euh, bu ko defee nag bu ngeen noppee bu ngeen amul sax possibilité déglu ko en direct euh, mën ngeen dellu ci euh, suñu plateforme yi en mode replay

Euh, ci reportage yi ajuma bu ne découverte tay dial job lañ jëm mhm. ah euh, ci walu communauté lébu bi nga xamné mo moo nekk fii euh, ci ndakaaru naka nonu di nga ñëw ak ñun ci actualité culturelle reportage bo xamné def nañ ko ci banlieue film ak Fatou Sow jeexalee ko nak ak li nga xamné moy agenda culturel moy agenda culturel ni nga ko waxee tey loolu mooy sommaire bi ñu fassé yéene ci ànd ak yéen gën yaatal rek walu aada cosaan vendredi bi passé dañu defoon première partie culture lébu daal di wax ci ndëpp mu nekk li nga xamante amon na solo waaye tamit mënuñu cof rek daal di génn Euh, parce que culture lébu dafa yaatu donc liñ ci war a wax bëri na naam sax mënuñu wax lépp mais dañuy cof rek euh, tey nag ñoo indi leen deuxième partie bi war a waxtaanee ndaw ràbbin acca kon on écoute on écoute euh, reportage bi nga xamante ni Fatou Sow def na ko ndaw rabine di ab fecc gu bàyyeekoo ci sunu mbokk lébu yi nekk wakaam yeen yoof ak ngor ca jamono yu yàgg lébu yi dañoo tàmmoon di def ay sacrifice ñu gën ko xam ci tuuru muy ay sarax yu ñu daan amal ca booru géej ga yooye sarax mën naa doon naq dugub soow wala sax suukar saa bu tuuru masaan am soxna yi dañu daan sol robb yu jot lu toll ci juróom ñaari sër maquillage comme ni ko ñoom maam doon defee fas yéenee fecc ndaw rabine gi boole ay way bu dëkk bin gi continuer di am ba tey ci communauté lébu yi ndax saa su ngénte wala mariage amee dinañ ànd ak seeni mbaj géwal maanaam seeni tëggkat pecc pecc mi lépp ngir gëna a fësal ak dundal sunu tradition ak sunuy patrimoine culturel muy gumbee yaaba ak yeneeni fecc ndaw rabin dinañ ko faral di amal saa su nawet tàmbalee ngir ndaw yi gën see gis seen bopp voilà li ngeen doom teewlu reportage bu ndawra bi ñu ànd ci ak Maymuna ñi ngi ngërëm bu baax mu dikkaat bu baax baax ci fecc bi di ndawra di euh, danse traditionnelle bi nga xamante ni communauté lébu ñoom ñoo ko créé ay at sax ñu rek gis ñuy mu stylé bu classique également ndaxte buñ koy def dinañu tegle seeni ay sër ba lu toll si ñaari sër ko euh, sol ay yu yaatu uten lool ak xale yi ni ñuy euh, itam

xam naa ndaw rabine bu baax ndax daanaka dama am ay mbokk yoo xam ni euh, dañoo nekk fa nga xam ne mooy caaroy géej te ku ni caaroy géej xam naa bu baax bëggoon wax ndax mënuma ko mais mënuma ko mais xam naa ni koy fecc <laughs> ndax sama mbokk yi ne caaroy géej <laughs> dañuy amal xew-xew yu mel noonu léeg-léeg ñu teew fa euh, ci la ñuy gisee daal li nga xam ne mooy ndaw rabine mu nekk fecc boo xam ni macha allah tubarfakal la cosaan la ndax bu ko bu ñu musaana solo ba takk jaaj yi jël nguuka yi def ko daal di def euh, musóor yi hmm. Euh, defar seen kanam tubaar la macha allah nga xam ni cosaan dëgg dekki na mu nekkoon nag fecc bu rafet tubaar fakàlla la allah góor dina ko fecc euh, góor ñi sax dañ koy fecc mm. boo góor ñi mm. dañuy fecc ndaw ràbbin comme ni ko jigéen ñi di feccee mais jigéen ñi nag dañ ciy àndandoo am ak déggoo goo xam ni léeg-léeg da nga naan ñi dañuy mel ni ñuy joogaal mm. léeg-léeg ñu koy fecc ànd ci ak harmonie mu nekk fecc bu chorégraphie bu rafet a rafet euh, nekk culture loo xamante ne si ñoom ñoo nekk ñu fonk cosaan dañoo nekk ñu fonk cosaan ñoo xam ni ba léegi mhm. dañuy dund li nga xam ne mooy cosaan xanaa xamoo euh, fonk cosaan boobu sax moo waral à chaque fois dañuy faral di amal ndawara ngir xale yi nga xamante nouvelle génération bi mhm. euh, des ci loolu mu des seen bopp ñu bañ koo fàtte xam ni li cosaanu maam la mhm. euh, Kels yaa ngi laajte sànq ni ndax góor dañ koy fecc ah, góor dañ koy fecc mais d'habitude góor yi ñooy nekk seen maître de chorégraphe donc ñoom ñoo leen di jàngal naka la ñuy naka la ñuy feccee en harmonie donc ñoom ñoo leen di répété

donc ñoom noonu la ñuy wane nii fecc bi mu ngi waaj a jeex mais bu ñuy commencé dañuy def euh, nànk mooy tax sànq mën a naan fecc bu classique la parce que mm. dañ koy fecc dañuy sol seen ay babouche waaw dañuy sol seen ay babouche marakis di baaje nànk mais ni comme euh, militaires yi bu ñuy défilé 4 avril sañ seen nànk dox euh, def seen convoi bu rafet sañ sañ sañ également bu rafet dox ba yegg si bu ñu yegsee nag nit ñi xam ne yegg si nañ te dañuy yiw ah, mm-hmm. ay juróom-ñaari sër la ñuy tegle bu ko defee doo genre dañuy mën nañ fecc ba fecc bi jeex doo gis sax sër bi nga xamante ni moom lañ jiitloo donc mhm. mu nekk tradition bi nga xamante ni également dafa am benn aspect bu am solo muy colin dafa am solo ci fecc mhm. Mhm. parce que euh, fecc mun naa mun naa xew ba tey fecc fecc mun naa xew yi waaye tamit solo ba ca war daf ci am solo parce que dina tax nit yi respecté la di nga fecc ba pare nit yi lu ñuy bàyyi xel rek moo di yow fecc bi nga fecc seen xel du nekk ci leneen leneen parce que na nga koy feccee dafay yiw donc mu nekk tradition lébu euh, mais dem nañ sax ba ñeneen a ñeneen dañ koy def parce que dañuy gis ne ndaw rabbi ni léegi euh, événement événement bu mu munti doon dañ leen ciy convier ñuy taaral mhm. lool lool lool euh, euh, li nga xamante ni image culture Senegal. parce que artistes yi dañ leen di mhm, dugal mhm, gisoo temps yi yow euh, am clip yi nga xamante ni dañ leen ciy jël Carlou du temps yi def na benn clip bi nga xamante ni ku mel ni góor gi Ndiaye ku mel ni góor gi Ndiaye même même même Omar Pène Way bi nga xamante ni def na ko ci clip bi ñoom ñoo ci nekk donc ñu nekk ci booru géej gi mu rafet ba bëgg di ak jaraaf bi donc mu nekk li nga xamante day taaral culture la preuve même grand carnaval de Dakar bi nga xamante mom moom lañ dëgmal daanaka affiche bi ñu ci def euh, euh, euh, borom ndawra bi nii. Hmm. loolu moo nekk affiche yi. image bi dafa rafet image ciy dégg nguuka je sais pas c'est quoi jaaro ay jaaro la nguuka ay genre kii la. nu mu tuddati mag ñi ñoo ko daan def. seen kanam waaw hmm. kay dañ ko daan def fii nii di ko décorer mu mel ni genre ay ay ay hmm. mu mel ni genre létt nag mais dañ koy def mu mel ni genre nungu nii ñu def ko nii ci kanam. ñu koy wax ay nguuka. ak xeetu jaaro mag ñi ñoo ko daan def bu ñu musaana solo mu ngi noonu ba pare gis nga ndaw ràbbin boobu yow euh, cosaan la boo demee mbaaw mm-hmm. ba ñu am xew-xew ba woote ca pénc ma mm-hmm. ba ba ñu génn mhm. kal sa yaram day daw même bu fekkee bokkoo ci collectivité lébu mhm. bu ñu soloo ba way mhm. sa àdduna jëpp day tukki doo bëgg lu loo yoroon rek nga jox leen ko ndax rafet ki démb ba Ahmed Fall dafa organiser regaat regaat tamit Penda war nañ cee waxtaan mu nekkoon cosaan bu yaatu ñu xam ko ci lébu euh, suñu mbokk yi lébu yu daan ko amal muy course rawante gaal ba léegi ñi koy des nag bareetul rawante gaal am na Fuuta euh, Ahmed Fall Baraya bu Ndar moo ko organisé woon woo ci collectivité bugg yëpp fukki penc ñeeg ñaar kenn desul tubaab jalaayu yeen ngor wakaam yoof mais boo koy seetaan kalz sa yaram day daw mu nekk lu neex lébu yi génn ñuy fecc ndaw ràbbin jaraaf yu sundooy ñëw ñu kontaan fina yow da ngay mel ni yow da ngaa bokk. ci biir day dundal cosaan day dundal cosaan ba léegi maxu lébu gi. woykat hmm. bu yàgg temps yële organise moom da koy organiser chaque année. day organiser ay ay ay régates. day hmm. organiser régates régates yooyu nag ci biir régates yi ku rawantey gaal yi. Hmm. dangay ngay gis ñu femmes yi ñëw solo. di fecc ndaw ràbbin ñuy woy nga xam ne lii mooy cosaan te ku faat ku bàyyi sa cosaan yàqu nga fekket nit amul lu dul cosaanam te cosaan dafa neex loo ci xamul mooy bu ñuy woy mm-hmm. seen ay rab la ñuy bàkk de comme ay lëg taawur ak yu ni mel. Mhm, mhm, loolu moo mhm, waral ndawraa bin ànd ak tuuru. yi sax da ci bu fekkee ni ñoom seen way yi ñuy way peut-être yow mi nga xamante ni euh, euh, nekkoo ci ñoom doo comprendre ñoom yan baat la ñuy way mais ñoom seen seen maam yi seen maam yi muy rab yi la ñuy way loolu waral sax euh, ay ay ak ndëpp su amee parfois dañ bi mel da koy neexal ak baat bu neex way ko way bu neex feccal ko également faites bu mhm. neex mhm. ngir mu mun ba li nga bëgg ci mom nga également euh, dañ ko dam def euh, ci euh, sank wax ci buñuy vous ndey la preuve ku ne xam na ni tay ji Youssou Ndour way na ko way bu rëy mhm. Jal Diop Sangomar ah. mhm. Jal job mi ngi Ndakaaru Jal Diop organisation mhm. lébu gi doon également li nga xamanteni euh, c'est un peu compliqué ñom rek ñoko mëna maîtriser waye ki di Papa Ma Jaxate sar Kalze bu ba noppee rek defal nañ ci benn geste bu yaatu euh, ñu daal ci ciy Jal Diop di dom ci Massamba Koki Diop ak Ngone Mbeng mom moy serigne Ndakaaru gu njëkk gu jité République lebu lu dalek ay atuk 1790 jëm 1815 jamono yoyu mu jité won fep gi nga xamné lebu yi fep won nañu ko ci kaw njitu kayor bi di Amari Ngone ndela fal lu tollok ñaar fukki at ginaaw ci lolu lebu yi daldi di sen bop ginaaw ba ca Jal Diop jappé bu baax lolé waral sax ba askanu lebu wolu ko teg ko bop ci sen askan tay ji Jal Diop dem nañ sax ba duppeekoo dalluwaayu état major bu armée sénégalaise mu di camp Dial ba nu ko tabee ak léegi lu ëpp fukki sëriñ ndakaaru jot nañoo jiite askanug lébu ba ki ci mujj jamono yi di Abdoulaye maxtar Diop El Hadj Basirou Diagne mi mu wuutu mooy ñeenteeli grand sëriñ de ndakaaru mi nga xam ne santul Diop ginnaaw Eliman Diol Alpha Diol ak Matar Silla grand sëriñ doon ki jiite askanu lébu daanaka taxawaay bi mu am ci askanu lébu mën nañu ko méngaleeg bu njiitu réew mi ci liggéeyam nag bëri na ko ciy jàppale ñu ci mel ne ndey ji réew réew mi nga xam ne moom la ñu mën a duppee ministre de l' intérieur mi yor lépp lu jëm ci wàllum suuf saltige di ki ñu mën a méngaleeg ministre de la défense Ndeye Diambour di président assemblée consultative yi ak yeneen i kilifa yi nga xam ne ci taarixu grand serigne de Dakar yëpp yàgg nañu doon ki nga xam ne dañuy tax ba du mën a ëppal ci doole ga ñu ko jox loolee waral sax ba léeg coow di ci am ba ñu ciy tudd ay ñaari grand serigne de Dakar niki li ñu nemmeeku jamono yi ñu toll grand serigne de Dakar itam ci digg mandam lolu sax nemeku won nañu ko ci ki ñëk a wuutu Jal Diop mu di Matar Diop mi nga xamne assemblée ñambur yi ñoko wacce won ginnaw ñak deggo gu doxon mak damel bu kayor biram fatim ciub ci atum 1831 la ni ne Mm-hmm. voilà euh, mu nekkoon découverte Dial euh, Diop ak it organisation Lebu Papa ma jaxate sa dikkaat ci nu mu gën a ngir permettre ñi nga xamante ni wuñu époque bobé euh, mun a ak ñi nga ñu ngi leen di dégg ba jox leen sax ay fi lé ci Dakar lu mel ni comme Dial Diop. yow mm-hmm. kan xam nga Dial Diop. waaw yow fan yii Lebu yi dañoo kontaan ci wa boy plateau la nak xam nga yow Lebu yi dañoo dañoo ci yow. ndax kérok yobbu nga ñun ñun ndëpp ndëpp bayasin bayasin bayasin bayasin yaasin ba yaasin ba daan waaw <laughs> eh, sank nga ñëw ak ñun ci ndaw ben gi la yaa ñëw ci jal job. et puis c'est de l'histoire li dafa mhm. dafa bax ci surtout eh, xalé yi nga xamné ñoy ñoo ñoo nekk ndakaaru te mhm. xamuñu ko mhm. te li ciosan la yo xamné dafa fat dafa eh, bax ñu leen koy fatali nem ñu koy des fois sax ñu koy jang école waye bu day baaxu si ñu gën leena xamalé ak suñu kilifa yoy nga xamné ño tax tay ñu naan ndakaaru joor ño tax ñu naan ndakaaru ndax da ngay dégg kenn mu ni dakaaru jël job ndakaru jël job yag nañ ko dégg bañi xalé mais xamuñu won réellement lan moy ndakaru jël job mm. ndekete jal jóob moom mais mo danaka mo njëkk jité ñi nga xamni ñom ñoo di collectivité lebu mm-hmm. mu nekkoon ku am ku ñu ràññee lool ci biir xéet wi mm-hmm. euh, gannaaw nak ba nga de ni jité nako ba suñu borom def li gën euh, ñu daal di toppante rek li nga xamni mo di xéet wi ka ca wara top top topp ca ñu daal di koy euh, toftalé ni ko xaté sar waxé légui euh ci kaw lolé ñu ni ñom askanu Njóob ñooy jiite li nga xam ni moom moo di Ndakaaru ci ay jamono loolu lañ daan gis collectivité lébu euh, ñu ni ku sant Jóob moom mooy toog gannaaw bi nga xamee ni Jal Jóob génn na àdduna mhm. njóobee ni ñoo doon jiite ñu dem ba ci biir nag xañ na euh, ci bu dee ci mag lañ koy parce que tamit maîtriser wu ñu carrément mm, naka la ñuy def ba nu ñu toogee mm. mais gisoon nañu euh, léeg-léeg mu xaw a indi coow moo waral sax bu ñu tabee grand sëriñ booy booy laaj histoire dañ naan la loolu yàgg na ci collectivité lébu ñaari grand fi tey mu mhm. nekk jamonoy kii Ablaye Makhtar jóob mi ak euh, Ibrahima Diagne ci lañ ni waa naka Ndakaaru mën a amee ñaari grand sëriñ ñu ni loolu de yéen ñii xale yi ndax xañ na yéen a ko umpale mhm. waaye grand ñaari grand yàgg na ci li nga xam ne mooy collectivité lébu mhm. euh, parce que tamit euh, buñ nee ñi sant Diop ñooy jiite comme sëtu Jal Diop yoon la ñu daal di koy toppante mais léeg-léeg seeni yaay xañ na mooy sant jóob bu sa yaay sante jóob it ci sëti jal jóob yi nga mais bu fekkee tamit war ngaa toog yaa ci mat ci sët yi dañuy jàpp ni yow yaa war a toog mais ci seen biir xañ na manque xaw ma ko mën a tudde léeg-léeg dafay faral di indi ay jeexi jaaxa ñu ni kii wërta toog kii war a toog affaire yooyu euh, moo tax à chaque fois ci biir day am ñaari grand sëriñ comme niñ ko gisee actuellement kenn mm-hmm. ku ci nekk euh, ñii ñi kii mooy seen grand sëriñ ñeneen ñi keneen mooy seen grand ak lu ci mënti am rek collectivité lébu bi la ñoom ñëpp ñoo bokk rek xam nga loolu dafay wax ne ni rek lébu ñoom ñoo ŋànk Ndakaaru c'est pas pour rien ñoom ñu naan euh, ñoom ñooy buur Ndakaaru mm-hmm. parce ki nga xamante ni moom moo mëne bi euh, des Lebu contre le souverain du Kayor de Amari Ngone Ndel euh, Kumba Fall euh, nga xamanteni ci groupe ñaari décennie mo fi nekkoon donc lolu day wone ni rek ñom yag nañoo ak capital bi di Dakar la preuve buñu démé ba dippee ko camp Dial Diop c'est parce que lolu yag na parce que camp yoyu nonu lolu suñu jamono ñom mam la won, jamono mhm, tan mhm, colon mhm, donc ñu dippee ko camp Dial Diop lolu day wone ni imposé won na bopam bu baax baax ci Dakar bañu ragné ko ci ba mun koo dippee camp mu nekk li nga xam dootul fay parce que ba tay ji boo demee ville nga ni Kandja job la jëm ñu ne la ma nga né mm-hmm, mm-hmm. donc lool tay ji histoire la également euh, li nga xamante mo organisation lébu euh, Pape Ma jaxata sa dikat nag ci lu bu gën a yaatu donc dafa nek à chaque fois li nga xamante ni day ëllëg nit yi euh, ñi nga xamante bokku ñu ci communauté lébu parce que à chaque mm-hmm, fois des fois coow dam jëpp ci kan moy doon jaraaf kan moy doon ndey ji réew kan moy doon li nga xamante ni di grand serigne de Dakar la preuve li nga ko waxee temps yële rek némé ko nañ fi ciow lu reuy ci at yee ñu génn diggante kan moy succès euh, entre Diagneen yi. Mhm. ak mhm. Bassirou Diagne euh, voilà ak Diobéen mhm. donc euh, mu mel ni kon li nga doon wax rek ñi nga xamanteni ne tàmmoon nañu di fi nek muy ku melni ni comme grand serigne bu Dakar di Dial Diop. day dem ba finalement ay domam dañ ñom ils se disent que ni ñoom tamit affaire succession la. mais bu dee ci walu at ki mag. voilà bu dee ci ci ci tarixa bu ci walu tarixa dañuy ni ki mag moy tok ci jal ki mag. mooy toog ci jal bi mooy jiite mais ci ñoom nag mënuma comprendre ñoom dañuy ah, waaw am nañ ñu koy organiser ñoom ci seen biir mhm. ba ñu ni par exemple kii jaañ la sant xañ na yaayam moo sant Jóob mhm. waaye bu fekkee it moo mag ci yoon. Mhm. te ci xeet wi la rek normalement moom it daa war a toog mais nag xamuma nag. mais nag ñoom parfois ñoom parfois ki mag ak ki nga xamante ni magul ñoom loolu yëpp duñ ko lijjanti ñoom li ñu lijjanti mooy sant bi. dañoo am fu ñu fu ñu. Mhm. voilà euh, grand Youssou euh, Youssou Ndoye c'est ça. waaw ah, jaraaf Youssou Youssou Ndoye. Mhm. Euh, dégg naa ni invité nañu dinañ fa dem bu soobee yàlla. incha allah dégg naa invité na rédaction bu. Euh, King FM su jumul juumul suba la sax lañ fa wara dem. Euh, seeti ko ñu ngi xaar luñ fay jël ci waxtaan. Mhm. xëy yi ngeen wax ni yépp dinañ ko ko poser wa les questions et que bu bu yembee dinañ leen ko dégtal euh, ci 9 11 may fatali wat il est 11 h exactement way ak yéen ci li nga xamné mom mo dess ginaaw reportage bobu nga xamné tay andi nañ ko ci wala liñu pap ma Madiakhté defal ci papier bobu nga xamné moy Dial Diop. Mhm. amna na leneen également lo xamné mo ci tegu waxna ko biñuy tambali muy festival film bi. voilà muy festival film banlieue di festival bi nga xamante ab association bi buy dajale jeunes yi nga xamanteni ni dañoo am cofeel lol ci walu cinéma ñom ñoko daldi initier ngir rek daldi rendre hommage professeur Abdoul Abdel Aziz Baye ci bilep dajé ndaje ñu amaloon ko niki ajuma bi ñu euh, génn mu 4e édition euh, bilep euh, festival thème mu ren bi nag regard sur la relève Fatou Sow teewoon na fa ñu teewlu ci reportage. Banlieue festival ab kuréel la buy tagat ndaw yi am passion ci walum cinéma bi la di quatrième édition bi thème biñ ko di regard sur la relève Mortala Kandi, moi coordonnateur bi festival. Euh, Banlieue film festival xew-xew la ak ndaje bo xamante ni bi édition buñ koy organiser lu ko sumb mooy wane diru ñaari at dañuy tëju lëlu liggéey di bind ay scénario di jang cinéma Waye aussi di wàcc sur le terrain ak ñàkk moyen di defar film yoo xam ni dañuy dem ba festival lu Cannes donc loolu la ñu war a wane tey jii nii ci ñetti fan ñu wane deux ans li ñu jot a liggéey mu si ay réalisation ci ndaje mi itam daal dinañu rendre hommage ki leen doon tàggat ci wàll wi di Abdoul Aziz Boy dafa def si ñun xam-xam jàngal ñu tette ñu yar ñu dafay ñu ko dërëm un franc Mali bu ñu ko fay et que moo tax ma ne kon jii nii monsieur Boy waruñu ko jooy parce que réussir na mission mais ñun ñuy nekk ay élève ñoo fi nekk tey la ñu a

Euh, ci walu bu ne photographe euh, vidéo wala sax euh, wàllub cinéma. amna solo ba mhm, solo Kals xam nga banlieue film euh, dama koy faral di dégg rek nag ah mais découvrir demaguma fa pour xam luñ fay def mais maa ngi koy dégg souvent. beneen édition naa la yóbbu. incha allah maa ngi lay xaar. <laughs> donc voilà ñu ànd ba tey Kalzi ci actualité bi. Mhm. donc mi film euh, Poisson d'or Poisson africain bu Tom Ancran et Moussa Diop euh, jot nañ leen nag primé ca Abidjan Grand Bassam ni ki semaine bile ñeel rek huitième festival international du film des lacs et lagunes festi Festilaf donc mu nekk ab beneen raaya bi nga xamante ni rek cinéma africain rawatina Sénégal mu ngi koy woy di jël di gëna wone bopom ci walu cinéma bi nga xamanteni jot na imposé ndax temps yépp ñu ngi ciy ko ay raaya yu ama am solo ba euh, am prix de la meilleure interprétation masculine au festival de Films émergence de Togo euh, pour sa prestation dans Gombi du euh, Sénégalais Molikan donc mom daf ci am raaya ci film Gombi bi nga Sénégalais bi di Molikan mom moko réaliser réalisé nak dom la ci d'ailleurs top 2018 jotone na am rayé ci clap Ivoire euh, ci film Gombi batay donc mu un film bi nga xamanteni mom jotna ci am ñaari distinction diganté 2018 japp 2019 ñel émigration clandestine ci bi film nak loye lañ ci doon waxtaanee émigration clandestine via les déserts de la Libye euh, calze li mo fi gënoon fess ci actualité euh, culturelle bi la ñuy cong rek agenda bi. man daame waa ji la bëgg nga bëgg ko la nga xel ba sa mbëggeel bi di feeñ moom ndaw si la bëgg nga la nga xel ba sa mbëggeel bi di feeñ moom ndeke mbëggeel nii neexe ndeke mbëggeel nii neexe kon ndeke mbëggeel nii la neexee dëgg dëgg ndeke mbëggeel nii la neexee aca maa ngi leen di fàttaliwaat am ngeen possibilité gagner ay invitation euh, pour assister le grand show euh, bu euh, Youssou Ndour et le super étoile le 30 novembre ñi ngi koy defee fii ci benn bërëb rek ci Dakar bu ngeen jotee invitation yi di ngeen ko xam mais mun ngeen ànd ak ñun toute la journée avec les animateurs ku ci woote rek dinañ la may ay invitation déjà may nañu ci page Facebook bi Doudou Diop c'est ça donc Doudou Camara voilà Doudou Camara Doudou Camara mën na euh, jël si euh, tikem wala dinañ ko contacter voilà page Facebook bi également am ngeen possibilité gagné moom nag ñaar la ñaan nee na mook soxna si waaye benn rek lañ lay mayagum voilà dinañ la mayagum benn pour le moment après ñu xool mbirum soxna si nu muy demee waaye bu bu fekkee sax da ngaa jonge mën nga koo jox soxna si. may ko ñaar waaye. waaw may ko ñaar. ñu ko ñaar waaw ñu jox ko ñaar. alalu Youssou ku ne xaj na ci may sa ñu ko ñaar. d'accord ñu jox ko ñaar. joor ñu jox ko ñaar. jox si mënta dem bàyyi soxna si. kon ñu jox ko ñaar jox ko ñaar ñaara ko yor sax ko yor. <laughs> donc kon ñu jox ko ñaar jox ko ñaar. wa d'accord on est on est d'accord. accord euh, euh, Doudou euh, Camara il a deux entrées. Euh, moom euh, madame pour nous mener au ñëw si euh, spectacle en privé de Youssou Ndour qui est prévu pour le 30 novembre dafa nag andi initiative bu bees boo xam ne mhm. concept bu bees la déco, ko grand show une allah ñun dañ leen ci accompagner ci semaine bi nous ngir may leen ay entrée ñu wéy ak Penda bataille ba tey ci nous bi ñu jël jagleel culture daanaka li ci des mooy agenda li ci des mooy agenda ouais, est-ce que nous daanalee fi nga commencé rek avec spectacle Youssou Ndour bi léegi spectacle Youssou Ndour boobu koy xaarandi le 30 donc mu nekk euh, le grand show mu spectacle privé mais invitation assister parce que day live donc mu spectacle bi nga euh, canal mais dinañ ko euh, télévision Futur Média le 30 le 7 décembre donc ñi nga xamanteni tay ji may entrée nañu déjà préparer bu musée des civilisations noires dem événement nañ agenda ak lan. voilà agenda bi batay c'est euh, ci àjjuma grand carnaval de Dakar dinañ ko euh, démarrer euh, japp tay jilé ñaar fukki fan ak ñaar jëm ñaar fukki novembre ci place de l'obélisque fofé ak it du centenaire monument de la renaissance ak musée des civilisations noires ci Atnak Tembidi, le Sénégal pays de grande diversité culturelle un atout attractif et un riche potentiel économique pour le tourisme manam dañuy fexé gëna woné wane culture Sénégal ngir rek uh, gën ko mëna wonalé yenen réew yi ci lépp occasion itam dinañ amal ab colloque sur la diversité culturelle au Sénégal uh, Niki ki tey ci ji à partir de 10 heures naka sax uh, war na commencé ñàkkul ñu dinañ ci dikkat ci suñu benen agenda wala suñu yenen actualité culturelle bu ajuma bi ñu dëgmal 19e édition du festival Image et Vie démarré na moom it à ki bi yemoo ñaar fukki fan ci weerub novembre dina jeex ñaar fukki fan ak ñent ci weerub novembre batay ci Dakar thème bi atub di image éducation buñu sukkandikoo ci directrice bi di festi di eh, bi le festival di Fatou Mbaye mom nak nena éducation à l'image day tax rek ba ñu am a eh, point de vue eh, personnel ñel bi lépp événement tay nak ci ajuma ji yam ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre di ngeen mëna am projection cinq étoiles à 16h seize heures. ñenti waxtu ci bëccëg lay doon à partir de ce vendredi 22 novembre itam dor nañu neuvième édition Gorée Diaspora Festival à 16h lay ubi. dina am cérémonie officielle bi suivi suivi d'un grand concert sur l'île à 22h dont le programme euh, va se poursuivre jusqu'au dimanche 24 novembre avec un grand carnaval suivi d'une remise de cadeaux qui mettra en terme à cette 9e édition Madame 9e édition le euh, bu euh, festival Gorée Diaspora ni ki tey Ubi ci ñetti waxtu dina am cérémonie officielle bi item itam dinañ ca toftal ay boolu ñaar concert bu mak manam grand carnaval ñu toftal ci ak remise de cadeaux bu ñu koy ngir mun leen ko euh, neexalee Bataille, tey kalsi ci agenda bi 17e euh, foire internationale euh, du livre et du matériel didactique de Dakar Ubina aipuntum euh, niki dembe Tifatelinak, Tembi Atubren ci itam des livre et citoyenneté à pour marraine le professeur Ramatoulaye Diagne directeur de l'université bouches Thiès FILDAC nag ñi ko lancé 1985 pour ñi nga xamante ni dañoo fàtte le la date wala nga xamante fekk na ñu leen ñu lancé 1985 2025 nguurub Sénégal moo amoon lu ni mel ñeel rek euh, euh, gën a mun a euh, suqali wàllub lecture waaye itam gën a mun a fexe ba xale yi di ñëw foofee ngir mun a découvrir ay livres yi nga xamante ni xëj na ñoom loolee xamuñu ko woon na voilà ba euh, ci walup agenda bi euh, Diourbel di euh, dalal du 27 au 29 novembre 2019 festival Kayrap ci programme bi nak walup éducation dina ca feus lol ca lycée ndax dinañ amal ay poésie waye itam ay ay dictée concours de dictée yi nga xam dinañ ko amal ci lycée bu Bambey mu nek ak événement bi nga xamanteni itam dina dalal artiste yu bari bokku na ca DJ Awadi bi nga xamanteni temps yépp yëpp tamit ñu koy gis ci page muy lancé bi événement di kay di kaay rap yoo xam nga événement boobu. xam naa kaay rap waaju lakkale. kaay production di ko koy wër ci dëkk bi. di ci dem. non non ci dem nag. mais yow kaas da ngaa bëgg rab. da nga cee war a dem man xam nga man ak hmm. rab beneen histoire la. boo xam ne ci RFM la. mais bon dinaa dinaa jéem a xool peut-être xam dem et puis j'aimerais voir le le live de Awadi. waaw il fait du du live ak euh, bande bi. et puis mhm. Idrissa Diop mi ngi ci sax. Mhm. Euh, Père Idri ci spectacle boobu donc peut-être ñu dem découvrir ko defe naa Diourbel lay amee. Diourbel lay amee sa gisoon tamit événement bi dina am solo lool ci ci euh, réew ci région bu Diourbel. si parce que Diourbel mhm. xam nga dafa xawoon dee un peu ci wàllu culture. ville la boo xam ne des fois sax dañuy wax c'est une ville morte ndax bëriwul ay yëngu-yëngu mhm. autorité yi fa nekk xëy na defuñu ko mhm. mais bëri na ay artistes yu jël ay initiative mhm. on peut prendre l'exemple de Diamant de X Press euh, Kaay mi nga xam ne génne woon na fa compilation voilà Aïda Somb Yoro Ndiaye bëri na ay ndaanaan donc lii dafa baax parce que day dajale déjà jeunes yi euh, ci li nga xam ne lu ñu bëgg mooy autour de la musique des des cultures ba pare permettre leen ñu am visibilité parce que am na y a beaucoup de jeunes talents yu nekk foofu le mais xañ na amuñu visibilité bi war pour ñu gën a mën a fëll nit ñi xam leen te bawol dafa neex te bawol dafa neex waaw bawol bawol yi rek teg ci kaw seen. dara du ko fay yeneen <laughs> lu neex ngay am foofu muy dëkk Serigne Salif Seck ñàkkul ni moom it dina dem teewe ji festival di euh, hein. Kairap uh-huh. mini-série sur l'indépendance du Sénégal di Black and White euh, Jacques Krisner daal di koy réaliser ànd ci ak Moussa Sène Absa dinañ ko commencer diffuser ca France à partir du 11 janvier lii rek day wanewaat ni que cinéma sénégalais temps yi mi ngi gën di euh, law ndaxte bu ñu demee ba ay série mi ñu diffuser mm-hmm. ca réewum France loolu nga xamante sénégalais ñi ngi liggéey bu baax baax ci wàllu cinéma mhm. donc mu nek bi nga film bi nga xamanteni interprété di Marie jay ak Isabelle Gélinas euh, Black and White est avant tout euh, une euh, saga romanesque qui raconte les passions d'une époque rythmée par les amours les haines etc voilà Kals léegi nak euh, li mo gënoon fës ci euh, agenda bi à part fàttali len rek anniversaire Carlo di di ngeen ko mëna am décembre le 17 décembre le forum da jamono gi la ci mbedu Dakar yi ñi mhm. ngi affiché mhm. euh, li lépp publicité bi ngir rek nit yi buñ ko bayyi xel bu baax a mhm. également demain samedi dina am spectacle Thiénaba Tall waaw Novotel lañ jëm ak moom moom defe naa euh, décembre bi day dem Grand Théâtre aussi day hein? dem Grand Théâtre mhm. fête fête anniversaire anniversaire am mhm. donc Adiouza daanaan la ñu ngi koy ñaanal bu baax merci Penda c'était très important aujourd'hui li ñu am ci walu agenda euh, boole kook euh, li nga xam moy reportage bu maymouna ci walu ndaw rabin mhm. ak Pape Madiakhaté mi ñu gëna xamlé ak Dial Diop waaye it festival du film bi nga xamné dafa am solo parce que film moom yakarna Sénégal jox nañ ko dayo bi nga xamné ne moom la yellool ñu ngi lay gërëm bu baax fekk leen rubrique bi eh, ci suñu plateforme yi léegi léegi eh, ci chaîne YouTube bi ak www.kingfm.sn mhm. di leen gërëm bu baax di la jox dig daje xam naa eh, peut-être vendredi prochain. vendredi prochain inshallah allah yal nañu fi mhm. yàlla bay ñu teeweewaat ko ñëwaat ci jukki leen leneen lu fi nar a gën a fës ci actualité culturelle agenda également rendez-vous également occasion la pour ñi nga xamante ne am nañ seen événement ñu contacter ñu. ñëw su ko defee ñu ñëw ñu ñu di wax waxtaanee. seen événement bu kenn dem ci Penda directement jaar leen ci man. nañ jaar ci yow sax. <laughs> Ah, man <laughs> maa ngi nii buntu bi maay buntu bi yow yaay buntu bi. waaw <laughs> kenn

Euh, euh, biir Thiès maa ngi leen di nuyu euh, bu baax a baax a baax a baax ñoom ñi ngi def job bu am solo Euh, peut-être sax certainement <laughs> xam naa ne bi moom di ngeen ko fi dégg euh, ñi ngi waajal euh, vraiment des événements très intéressants bokk na ci muy l'office national de l'enseignement catholique bu Thiès dans le cadre si seen célébration wu 50 ans yi au service de l'enseignement ñooy organisé nag benn méga concert boo xam ne ñu ngi koy ànd ak DIP le 7 décembre bàyyi leen ci xel ci Mikeelon dinaa ci gën a dellu soit incha allah ci suñu pàcc culture bi tout de suite on va passer à la revue de presse de ce matin bu Serigne Saliou Seck ñu déglu Euh, li ci yéene kaay yi te dellu siwaat wéy ak yéen li des ci jotaay bi aljuma ba aljuma bi dellu si ñu koy waxtaane muy mbiri Seydina Fall la tax ñu wax ko nag moo di sa ngi ni yéene kaay bu ko fësalu ci sa xët itam wax nga ko ci sa biirub journal le quotidien ak réew mi quotidien ne Seydina Fall tey ci aljuma ji lay dem ca kanamu procureur de la république gannaaw ñaari fani garde à vue yu mu def ca section recherche gendarmerie ba kaay ne li leer te wóor daal moo di waa section recherche gendarmerie bu Colobane ñoom noppi nañu ca enquête bi nu doon def ba jébbal dossier ya procureur la tribune ne boo moytuwul nag Bougazelli dina dem kaso ndax nag loxo ci poos lañ ko jàppe ba noppet mu tàbbi ci ndëgg sërëx gi ko alkaat yi lalaloon yéene kaay ñetti mbir rekk ñoo ko ca mën a fekk ba ca njëkk moo di ñu dóor ko mandat dépôt ne ko demal kaso toog xaar fa sab ñaareel ba moo di ñu dóor ko contrôle judiciaire maanaam mi soxla woolu ko ñetteel ba moo di ñu seetal ko ne ko defoo tus ci li nu la tuumaal maanaam demal ñibbi toog sa kër l'observateur mel ni kuy tontu journaliste la tribune yi dinaan leen loolee lépp nag procureur de la république rek moo ca mën a wax ban la ciy gàll ci ndoddoma Bougazelli libération yéenekaay ne procureur kay lijjanti na mbiri Bougazelli yi ba noppi journal rue 15 angle corniche bi di l'observateur ne jooyu metti te yàgg sax la Seydina Fall Bougazelli doon jooy démb bi mu doon jàkkaarloog gendarme ya nekk ca nekk ca a ne moo taxit gendarme yoon noppi nañoo ko bugaaseli ba tax moom député APR bi tey jii procureur Serigne Bassirou Gueye moo ko nar jiite jullik aljuma 24 heures yéen a kaay ne dëgg la ndax moom bugaaseli la mu wax gendarme ya nekk ca Colobane yeyu leen benn yoon ba tax boo moytuwul dinañ ko toppee association de malfaiteurs di lëkkaloo ci ak njubadi di defi ñaawteef jaarale ko ci xaalis bu baaxul l'observateur ne li leer te wóor daal moo di bugaaseli moom tey jii lan koy defeere te boo moytuwul kaso la jëm ñu bañ a jëm ñun fenn te desaat ci l'observateur ubbil journal bi yéen a kaay Futurs Médias ne diiru fukki weer rek juróomi téeméer ak fukk ak juróom-ñaari doomu aadama faatu nañ ci ay accident yu am ci kaw tali bi gannaaw gëstu bu yaatu bu ci sama naataango yi def li nu xamal moo di waa Louga ñoo ci ëppale ndax fukki nit ak juróom faatu nañ ci kaw tali bi Thiès topp ca ak fukki nit ak ñett yu faatu ci ay accident Ziguinchor ak Kaffrine ñëw tëj ko directeur des transports routiers di Cheikh Omar Gaye ne diggante juillet jàpp septembre rek lu ëpp ñaari téeméeri doomu aadama faatu nañ ci ay accident directeur général bu samine dëgg la ci enquête yéen kaay la ko xamle mu ne Sénégal li fi faatu ci accident at mu nekk ëpp aadama ay junni junni étudiants ñooy xaar jamono ji ñu orienté leen ci daara yu kaw yi nekk ci réewum Sénégal ubbil le quotidien yéeni kaay bi ne wàllum orientation nouveau bachelier yi jur na coow ak njàqare ci ndongo yi waa SAES e di kuréelug syndicat yi ëmb jàngalekat yu kawe yi ne tolof-tolof yi ci xew yépp nguur gi ñoo ko fi àndi ndax nag ñoo xëy rek ne dinañ orienté ndongo yi am bac yépp ci université publique yi te sax waajalun ko benn yoon booba fekk na daara ju kawe ji di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru njiitul ku bu bees ba di Abdoulaye Sow tàbbi na ci coowam lu njëkk ak étudiants ya ndax nag ndongo li ñu wax moo di nanu joxe logement provisoire maanaam néeg ya dara jaaru ci yoon te nag li leen gën a metti moo di directeur kuddu bi di Abdoulaye Sow dane pavillon A benn néeg bu nekk ñeenti étudiant rek moo cay nekk loolee nag la étudiant yi ne baye boo mu teg ko ci suuf lu ko mooy dinañ ko tegal alxatiir moom ak i ñoñam alxatiir daal kenn waru koo tegal président Abdoulaye Wade ndax nag liggéey bu rëy bi mu def ci mim réew Vox Populi ne ak les gi demoon seeti Pape Diop foofee fa la fara wadd njàkk daara wadd njàkk xam lee ni mag la te it màggat waaye ne loolee na ay ngalaju ki nu tegal alxatir dëgg mooy waa ji nu doon àtte démb ca tribunal grande instance ba nekk ca Kaolack kaara seen la tudd toll ci ñeen fukki at ak ñeent benn liir bu toll ci ñaari at la doon jéem a yàkkataan ba gaañ ko tax attekat yi gàll ci ndoddam fukki ati kaso yu muy ànd ak liggéey bu mu sañu ta bañ di ko toppe mbirum kàccoor saay-saay ak yàkkataan gune gu xàmmeegul doy na waar doy na waar doy na waar Serigne Saliou ñi ngi lay gërëm bu baax a baax a baax a baax kawteef rek xam nga mbirum fait divers ak ay def-def ci réew mi fan yi moom doy na waar ci li ñu koy nemmeeku euh, di euh, ñaan rek nag suñu borom génne leen ci yooyu mu leen xiir fan yi baaxul voilà te te te jëmul kër may sa nag dama laa bëggoon a may euh, Ngoné Ndiaye Guèweul waaye xam nga heure bi Ngoné Ndiaye Guèweul day xaw a tàng ñu bàyyi ba ci kanam rek ba ñu dugg ci kanam ci waxtu bi ci beneen waxtu bi mais dama bëggoon may sa sa sa sa tante ah voilà Ngoné laa la bëggoon tegal woo ñoom daaw ak ñoom kadeet ñu ñëw voilà bu ko defee xale yi yëg ci kaw table bi def mais bon am ngeen tuuti chance on va écouter un autre titre euh, le temps de retrouver euh, la chronique de Dissa Préra ndax moom euh, xam ngeen ni sax mooy jeexal jotaay bi voilà moom day résumer lépp lu jëm ci wàllu actualité

Wa Medina Baye euh, sama xel fay dem ci ñom ci suba si di ci nuyu kilifa yi nga xamne euh, ñi ngi lay ñi ngi ñuy MC ngi lay nuyu la sax euh, ci ci raison pour laquelle ma bégal la ci titre Brick bi nga Barham et puis ñu ay c'est tout de suite ñu ko ak la chronique de après suñu Finalement, il est venu à faire face, il est déféré au parquet et pourrait passer sa première nuit en prison. Mais entre-temps, que de rebondissements dans l'affaire dite de la semaine. Quand même, 42 millions de francs CFA en fausse coupure sur un député, la main dans le sac pour une affaire, c'en n'est vraiment une. Qui plus est, a tenu le pays en haleine toute la semaine. Un jeu de cache-cache, il faut le dire, qui avait fini par nous pomper l'air. C'est comme si le présumé coupable préparait son entrée en scène après sa première audition. Subitement, l'homme réapparaît après avoir dit disparu. Du vrai théâtre, du faux lion au faux billet de banque ferait un bon titre pour cette semaine. En tout cas, au box-office, le tonitruant Boug a fait le plein et a fait le buzz. Mais il ne faut pas oublier qu'entre argent sale et certaines de nos célébrités, c'est une vieille relation. Si on convoque le passé proche, on voit que beaucoup d'entre eux ont eu affaire avec la justice pour ces histoires de faux billets. Vrai ou faux, le sabre attribué à notre vaillant cher Omar Foutioutal aussi entraîne une polémique. L'arme appartenait-il au homme ou non C'est la question fondamentale qui divise les les opinions et les avis. Aussi, j'estime que le débat doit être clos par des travaux scientifiques. Le Sénégal ne dispose-t-il pas d'historiens capables de nous éclairer Bien que si. Et si on peut se réjouir du retour de ce sabre, je suis un peu choqué par la pompeuse cérémonie qui accompagnait. accompagné affaire. Car il faut le noter, au même moment, la France nous fourguait des patrouilleurs et autres types d'armes. Bref, on passe. Dans les rues de Dakar, bientôt c'est la fin du désordre et du mauvais comportement. Maki en a décidé ainsi. Plus d'encombrement de la voie publique et uriner en pleine rue est passible désormais d'amende. Mais entre le Sénégalais et l'incivisme, c'est un problème d'éducation et de je m'en foutisme. Cette fois-ci, le chef du pays semble décidé à y mettre fin. Mais combien de fois a-t-on pris de pareilles mesures La suite, on la connaît tous. Au moment où Bougazeli essayait d'éviter la prison, un autre prisonnier fait parler de lui. Du fond de sa cellule du Cap Manuel, l'ex-homme fort de N'Djamena se signale. Une maladie vraie ou feinte a fait sortir sa famille du silence dans lequel il s'est téméré depuis sa condamnation. Un autre fait de la semaine nous renvoie à Léopold Sédar Senghor. Tous nous avons rendu un hommage à la première première dame du Sénégal post-indépendance. Dans la vie comme dans la mort, Colette Senghor a eu de la dignité. Mieux, une dame qui avait de la tenue et de la retenue. En un de la classe. À lui et à sa famille, pandémie, tout le Sénégal dit adieu, Madame Senghor. jërëjëf di sa Préra très intéressant Tu euh, résumé bi muy def ci wàllu euh, actualité euh, bés bu ne wala ajuma bu ne ci jotay bi ñu di 911 mom nak mokay euh mokay koy voilà di ko bëggee bu baax retrouver sa euh, sa chronique euh, sur une plateforme yi ñu leen jagleel euh, bu King FM moo xam Facebook bi la wala YouTube bi wala sax ci li nga xam 3 www.kingfm.sn Mais on a déjà donné deux tickets ci wala des invitations si page Facebook bi

Euh, tout au long de la journée ...qui euh, suñu antenne Booking FM ngir mën euh, des invitations ngeen dem assister ce grand show organisé qui sera animé par Youssou Ndour et le Super Étoile de Dakar ce sera une soirée en privé ...un spectacle privé donc il y a une possibilité donc appelez-nous et puis on vous attend alors tout de suite on va continuer de vous proposer un titre euh, mais djexal nañu 9 11 bi voilà djexal nañu 9 11 bi ñu attaqué à ak ci voici euh, le le Sidi job en live et puis une faire de une façon de faire transition on vous donne rendez-vous tout à l'heure pour yeggali Watsubi. suite